asalaamaaleykum suñu tous internet nuyu bu baax di ziar suivre sur euh di nak ñi staff technique bi ku ci Omar le Messi Kalidou sama chéri Nous sama jumelle Mira tay ñooñ la andal nous def ak yeen waxtaan ah, mu champion xalé yo xamante ni dañoo nekk seen yoon kenn ku nekk lamb daam si ñoom yaakaar kenn ku nekk gox bi nga dëkk am na ñu la fay topp boo leen gisee lii nag ngeen xam ni juumuñu wala yéen seen choix juumoo leen parce que yéen lépp lu leen bëgg rek dañ koy def ah, ku gis plateau bi nag ah, gis nag wane na boppam ndax ah, boo nee Papa Yade xale boo xamante ni dëkk ngecc nga xamante ne borom fukk penc yeeg ñaari xale boo xamante ne alab lébu ñu dalal ko mu nekk champion boo xam ni hors pair ci li mu nekk mu mujjee bëre ki nga xamante ni moom mooy Papa Boy Djiné euh, ñu ne waat à gauche mu jàkkaarloo ki nga xamante ni l'enfant chéri de la banlieue mu nekk xale boo xamante ni jóge Malika Kër Massar yëmbal ñoom ñoo ko ngemb muy Bulldozer jóge ci ki nga xamante ni moom mooy Brise de Mer numéro 2 ñu ñu waxat ñu féetewaat ki nga xamante ni ba léegi moom mooy à droite euh, Tonnerre 2 mu nekk xale boo xamante ni xale bu Ndakaaru bi ndax tamit euh, ci pénc bi ba léegi-léegi we ndax mën nañoo wax ni lébu la mën nañoo wax séeréer la mën nañoo wax ni olof la parce que fi mu nekk la mu nekk koo xamante ni macha allah dafa nekkoon ci dina dynamique am mu nekk xale boo xamante ni tamit wax dëgg yàlla euh, naam ngin bu yof la mujjee bëreel mais wane fa yaafuus ñu jàkkaarloog tamit keneen ki nga xamante ni mooy xale bi nga xamante ni dafa bëreek ay rakam euh, fas yéene yéeg ci kaw muy ki nga xamante ni muy l'enfant chéri de la banlieue ba léegi jóge parcelle mu nekk koo xamante ni boo nee Grand Médine na parcelle ah ne tamit euh, case ba muy ki nga xamante ni muy 2 euh, giga wala 3 giga mu nekk xale boo xamante ni barki Dembo Ndiaye arène nationale fa la def lu doy waar ci digganteem ki nga xamante ni moom mooy du Kaw Gourdin li lañ leen indi ci li nga xamante ni moom mooy plateau bi ah wax dëgg yàlla nag damay jox ki nga xamante ni ñan laay jox sax dañuy xool kan moo kan kan mooy këf quoi. ndax duñ ne kii duñ ne papa yaa duñ ne bulldozer te micro mi ngi nii damay joxe wala da am kuy jël damay joxe mira damay joxe wala da am kuy jël. ma joxe ah wa legui damay def gauche wala ma def droite damay def gauche papa ya de micro bi jégué na la euh, dañ lay bàyyi nga nuyo assalamu alaykum nuyo aduna di nuyo wa senegal xam nga sunu wax tënkee fi ñu dëkk ak ginnaaw bi ñu sant xam nga julli ci yonentaw di sant suñu ñaara wayjur bu baaxa baaxa baaxa baax ya jëf wa koku moy ki nga xamanteni mom moy papa Yade mom nuyoom bi sax dafa ki xamna naa jaakar lool mom motax ah, ah damay jox ki nga xamanteni mom moy toner mu nuyo wala wa toner papa Yade jox ko subhanallahi min rajim alhamdulillahi rabbil alamin may ngi nuyu gaay mu fekk yeb di nuyu kolobaan gi mo joge di nuyu bulldozer di nuyu papa di nuyu 2 di nuyu suma gaay man dal baay jili koña mor diouf di nuyu wa kolobaan gi ma joge yep nag waaw walaay nuyu wa damay jox ki nga xamanteni mom mo nek a gauche mu ya 2 ziga 2 ziga ma ngi di nuyu ma ngi lay fay fatima di salam alaykum wa senegal di nuyu ñi fi tew ñep di nuyu mbeur yi fi tew di nuyu wat ñep di leen wax salaamaaleykum waa sénégal info rew mi lay doon waaw auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ma ñu ngeen nuyu bu baax di nuyu say saf bi nga àndal di nuyu champion fekk yi muy Papa Yade Tonnerre de di nuyu sama gars yi ma àndal Xarin Fall ak Zo di nuyu àdduna di nuyu waa Malika gi ma jugee yëmbal Kër Massar buun xam nga waa àllu Baye ñaax benn bagaat gaa maa ngi di bëggee di leen ziar waaw ah, sama sama carte bëri ñoom ah, nuyoo nañ mais seen nuyoo bi xam nga di xaw a kii di ñu wàññi Amira seen nuy seen nuyoo bi. dafa sedd nuyoo bi day tàpp xanaa doo leen ko rek du ay mbër. Ah, wa je nga wa mais Je après xam show pour yéen ñu suivre hein, sur www.inforewmi.com lii mooy li nga xam te ne indi plateau bi li ma leen wax rek yéen lépp loo leen bëgg dañ koy def yéen yéen bëgg lii ma ah, commencer du ma ne Bulldozer du ma ne dafa combat combat ci diggante ki nga xamante ni bi Désert joxon nañ ko fi ay ben adversaire après dina éclaircir avant ñu ñëw ci waxtaan bi Tonnerre 2 ñu ngi doon dégg ay combat Papa Yade moom moom mooy daj dëpp gi moom dañ koy jox combat mu jël avance bu heure bu ko neexee sa waay dina waat avance bi loolu tamit dinañ si ñëw mais dañuy njëkkante ci ki nga xamante moom mooy Papa Yade Papa Yade ñu gis la depuis ba nga jógee ci ki nga xamante ne moom mooy booy jinne Djiné ñuy fàttali li nga xamante ne moom mooy sa palmarès pour ñi nga xamante ne ñoom ñoo lay suivre euh, ñu commencé ci li nga ni sa komba yow ak anti gis nañ ni da nga jógee ci euh, ci euh, Papa Boy jinne ñu koy jaalewaate ñu koy jaalewaale xam te ni waaye juróom bu góor bu génn àdduna nga nga jóge ci moom mais depuis lool xam nga ñu lay jox ay combat ñu jox la sa combat ak anti nga té avance bi dal bu heure bu la nexé dal nga ni samay supporters bugguñu ko ñi naan dafa tapet ñi naan dafa tek bopam fu mu yagul Papa euh, euh sa palmarès ba paré ñaata combat nga def. def naa ay combat yu bari xam nga nga benn xala rek nekk ci lamb man dafa guma ci dara ken xamuma lool la jappé quoi parce que na lo xamne ne yoru koy yóoru du ak wax wala dara mais ñima xam xam nañ ma mais ñima xamul duñ ma mësa xam mais combat yi ma bëre man sama premier combat maru gara combat la bëreel Turbo mu tuwaawan dëkk kees koo xamul Sénégal amul koo xamul Turbo mu tuwaawan Moustapha Gueye defal nga leere tigir nii di wax si moom ma ñëw jël combat bi ñu bëri na ma combat bi baax bu ko jël mo jël nga sama bopp dem yàlla suturaal ma si. teel micro bi bu baax après nga xool caméra bi. xam nga bëri na si ay combat yoo xamante ne nii xam nga sama jaayante ma waxuma sama ni ma doll nii ba ma toll combat nga def mbëj. waaw bë bëri naa bëri naa ay combat ay six combat laa bëri mais ñi ma bë ñi ma bëreel ay mari grand combat lañ ay champion lañ man amaguma defet. ah waaw kay très bien. amaguma defet quoi. Uh-huh, uh-huh. waaw mais sama combat andi man maa ko jël combat maa ko jël kon man bëgg naa bëri man muy dem ba jël combat mais sama ginnaaw laa yëgul woon ñooñu laa déggantal woon ma ñëw ñu ne ma combat bi nga jël waroo ko jël. c'est-à-dire ba ngay jël anti yow jëloon nga ko. pour bëgg a ak mom mais dafa jël avance ba pare. waaw ñi say entourage né la délo ko. parce que ñoom dañ nga xamul quoi mais man xamna and mais ñoom xamuñu ko parce que laa ma dafa nekk lo xamanteni ne ni mënoo bëre say moroom ñëpp boo naree bëre say morom dañ lay faté man sama morom mu ma bëre si may noonu la ñu ngi bëre ay grand combat xam nga di toj sama carrière ko ko ko pasar pasare damay def nanka nanka xale bu ndaw la. mais Anta du du du du pasar pasare parce que Anta la. waaw andi mbër la champion la. Mhm. xam nga man bu may wax si mbër damay wax si mbër lu nice quoi ngir boo gisee sunu wax yi passé sax xam nga moom moo taxaw si télé bi di wax lu ko neex te fii nii wax la rek ñun ay lëbu la ñun boo ñu waxee nañ la koy delloo mu saf xam nga lool la rek mais andi laa ma boole nañu. loolu dëgg la mais tamit ñi ñi ñi nekk sama ginnaaw bu ñu ne du ma bëre loolu mënu ma si dara. est-ce que affaire mystique ak yooyu noonu. mystique man man dama ragal mystique est-ce ci mystique man bi ma dal man bi ma dalee bëre ba léegi mbapat sax dama dem ñi li ma jàpp mystique ma dem jël mbapat bi ñëw toogaat musique loolu dara dernière position la laa ma boo entre nawul amoo doole boo daan kenn. musique ay affaire la nii rek taabal taabal yi nii. Mhm. léegi ba nga delloo avance bi après promoteur bi yéen ñaar digg. non avance bi jëluma ko. ok jëloo avance teewuma xaalis xaalis teewuma ko sama loxo. ok sama gis xëy na nag ñii ñi xamul ñoo xamul rek. mais ñi xam xam nañ ko waaw am na loo xam bëgguma di si xuus kon genre yoon. mais non wuy ma ne Papa Yade nag day leer mm-hmm. parce que ñëpp ne da nga jël ante bu heure bu la neexee nga xool bagage yi naay sul après nga del say mbokk na la yóbbul léegi nag comme que promoteur bi waxtaan nañoo woon ak moom mu ne yow combat bi da nga koy bëri mais yow finalement combat bi bëree toog promoteur bi yéen ñaar après nu mu demee yéen ñaar. promoteur bi moom day liggéey xaalisam la war. man sama doole laa yaakaar ak ñi nekk sama ginnaaw kooku mooy soog a tëggal combat. muy Fallou Ndiaye. waaw. Mhm. kon loolu garaawul quoi Fallou Ndiaye ñu ngi déggante borom baax la. Mhm. mooy wutal ay adversaire gars yi ñoo nanguwul jël rek mais mooy wutal ay adversaire yu baax. Mhm. ñoo ñoo war a jël xale bi ñëw bëre. gars kon comme ñii ñii nii ñoo bañ ak. fi toog ñi ñëpp ay champion lañ ay Bulldozer deux Ziga. Tonnerre ñëpp ay champion lañ. ay xale rek a fi daje fii. kon bëgg nañ dara si làmb quoi. mais man li may séentu baay gars yi nañ ñëw ñu bëre ñi ma war a bëre xam nañ seen bopp waaw gars yaa ne ay champion lañ ñi ay mbër lañ eh. def nañ lu ne si làmb eh. daan nañ fi ku ne mm. mais man dama nekk xale boo xam ne waa tënge dañ ma yaakaar mm. mm-hmm. te man samay morom laa fi bëreel masuma fi bëre paa làmba ji masuma fi bëre paa samay morom rek laa fi bëreel noonu la demee yaakamtiwuma ko waa Fatma mm. may def nanga nanga rek mm-hmm. parce que maay doomu tëngeej quoi mm-hmm. xale ndaw laa xam nga di profité di nuyu mbaru tëngeej yëpp di nuyu ñëpp xam nga. Mhm. di leen bëggee bu baax a baax daal. Mhm. waaw noonu la demee am na solo li nga leeral parce que tamit bala ñoo commencé ci waxtaan bi am na avance boo jëloon ñu bari naan dafa daw affaire yooyu noonu mais li nga wax wax dëgg yàlla dal na xel ah, xam naa ni dina ko convainc di nga convainc. dama dawal góor man mooy góor takk ñoom ma takk sër ñëw si làmb bëggal ko sama bopp ma doon ko dund sama yaay dama lii bu ko dund dafa metti ma nekk booy bëggal ko sama bopp ba léegi man amul góor bu may rëkkaleel si làmba góor ak góor nii dañuy jëxaat rek ba dee parce que man Baye Fall laa parce que boo doonee Baye Fall nekk si benn métier da si war a dem ba jeex man ma may daan rek may daan si fulla man mosu may combat ma wala ma daan la noonu laay géemee que fii làmba toll la licence yi ñoo bëri fi nekk di tooy tooy lu gars yi lay si xarlu bi xam nga te man mbërul xarlu laa quoi ak maanaam Baye Fall yi ñoo nekk sama ginnaaw tëngeej xam nga. nekk sama ginnaw ma ngi nuyu maam Thierno Sané. Uh-huh. léegi joxaloo micro bi Tonnerre do bismillah uh-huh. Tonnerre ñu gis ne ba nga jógee ci ngin bu yof uh-huh. xam nga bi la ñi ngi lay tooñ sax naan Tonnerre dafa xawa xewi xam nga nga nekkon ci lancer bu baax wax deug yàlla doon beure di dan di dan ba ben instant xam nga am ben affaire bu la xawa baare ba pare ñu dégg ni Tonnerre yow yaang nekk ci saaku yi ba pare ñu jox la ay ay avance. tonnerre di choix di def ay choix kii quoi. am na benn avance bu ñu am combat bu ñu la doon wax benn mbër bu ñu la contacté woon pour yéen ñaar seen combat nga ni doo ko jël. Hmm? non man aw mbër bu may moytu. Hmm, mais sa combat ak nongolo combat boobu li tax kii woo ko. nongolo. tonnerre xooloo kii bi hmm. du ma bëreeg ndongoloo. da doo bëreeg moom. non du ma moom donte dama nekk ci saako yi sax du ma bëreeg moom. loolu waxna ci promoteur bo ba pare du mu mom euh lamb nak mo démé no xamanteni ci manam euh da ngay toru moment bo xamanteni ci si mm, mën na neex mais bo jappé né da fay neex chaque jour rek nax nga sa bop parce que kudul daanu amul lamb daan la ak daanu gëmal nak daan parce que man loolu la gëm bo fi ma tok ni daan rek la gëm waaw. daanu nag bu ma dabee damay nangu dogali yàlla ndongoloo proposé nañ ma ko ay yooni yoon promoteur yi proposé nañ ma ko. ban promoteur la woon. promoteur yi bëri nañ bëri nañ. ok ñoom ñëpp. Ah, bëri nañ bëri nañ ñoom ñëpp ay ndongoloo lañ ma doon expliqué. Ah. man leen bëreewu maa ngi ndongoloo. moom li mu nekk saako yi mooy moo tax. xam nga dañ nekk ci saako yi man moom même bu nekkee ci saako yi bu bu dee ay ci saako yi dañ nekk ndongoloo man bu dee man moom maa ngi ci digg bi d'accord naa maa ngi ci saako yi. Mhm. maa ngi ci digg bi mu ci taat bi moom. ii dafa digg. mi ci taatu saako bi. Ah. du kii ah. li mu nekk ci taatu saako yow nga digg moom moo tax doo bëreeg moom. waaw ah. ñun ñaar dañoo bokk saako bi quoi. kon ñaar ñu saako bi mënuñoo mayante loxo. ñu bari nañ ma combat yërmande la doon nekk combat boobu noonu. waaw ku ci ëpp ndeysaan mooy daal waaw loolu mën naa nekk combat yërmande la série penalty la rek. Hmm. mais taluma ko quoi. waaw te sa côté da doon bañ a raté quoi. non man du koy raté. ah sa kon kon nga kii man du ma koy rate doo koy raté déedéet. Hmm. waaw. Ah, après bañ pare si Ndongo Lo après dinañ si ñëw. dañuy jox ah. Bulldozer. waaw Bulldozer mooy moo jógee ci ki nga xamante ne moom mooy brise de mer numéro 2 euh, ñu joxoon ko moom it combat. Buldozer sama dëkkaale laa ak ndax booy bi ñu koy jox nag muy petit ñaa ñun sax ñoo amoon suuf ba léegi avance moo ci xawoon des tuuti ñu jékki-jékki Buldozer xaw ma daa rasu xaw ma Buldozer affaire dëkkaale lay wax Buldozer est-ce que loolu mën ngañ cee leeral euh, parce que ñu bari instant bii nii bëgg nañ euh, nga wax ci combat boobu la sa combat ak petit ñaa lan moo waral combat boobu kiiwul. am waaw baax baax. Mm-hmm. sama combat man ak Petit Niang daanaka promoteur gi doon nañ ko dox mais biñ koy dox man sotteewul suma côté waaw mais manager bi moom sotti woon na si moom si côté am waaw sama manager ak ak ak euh, moom manager bu Petit Niang ñoom ñoom waxtaanoon ñoom seen biir ba d'accord Moutaak Ndiaye moom Bourkhane moom sama nijaay Bourkhane mooy mooy mooy mooy manager am ñoom ñaar waxtaanoon nañ si suuf ba d'accord. promoteur xam nga te xamuñ ne Petit Niang ñoo bokk fi dëkk Petit Niang buy dem géej sama buntu kër ngay jaar xam nga man Mansour Mbaye la nekk man ma nekk Marika xam nga muy ànd ak sumay grand su mel ni Abondoy Saloum xam nga ñooñu ñoo du njëkk a seetaan sax ñun ñaar ñuy bëggee du question de dara mais manam moom ay nawle gañ dañoo jege te lamb tollatul foofu waaw lamb léegi dépassé na foofu quoi waaw ñun mbër yi dëgg ñoo bokk ndey ak baay mais mais day am foo xamante ni bu fa lamb toggee non ku si nekk da ngay ànd ak xam nga say mbokk waaw mooy loolu te man su may ndigal kase laay wéyee wax dëgg yàlla man musuma jéggi frontière man ndigal kase bi désert nangam ngay def ma def ko doo def nangam du ma ko def wax dëgg yàlla ndigal kase laay wéyee te loolu buñ ci waxtaanee après dañ cee d'accord waaw dañ cee d'accord rek grand frère yi ñëw wax woote ñu déggoo si xam nga combat bi après man noonu kese gaa ko kiiwee de wax dëgg yàlla man man amul dara goo xamante ne mos naa ko see wax man li ñu mën a leeral mooy sa combat ak Petit Niang nekkul ni que ni yéen ñaar da ngeen a bokk ay adversaire dend ba pare ngeen dëkk loolu tax combat boobu daal mënul nekk mais nekkul da nga daw avance bi wala loolu noonu non non non non non man du ma man ma man mosumaa daw avance mbër ok man avance mosul tegu sama loxo ma déggoo ko mm-hmm. man avance mosul tegu sama man ma koy déggoo waaw wax dëgg yàlla suma manager sax dama koy sant si côté boobu moom ak a gaaw Matar Ndiaye xaalis buy tegu si goxam saye jeex na waaw wax dëgg yàlla man moom aw ma problème boobu quoi man moom ndigal kese gaay wéyee ayca nañ dem bul jël maa ngi déglu gaay rek wax dëgg yàlla lu gaay wax rek maa ngi seen ginnaaw. Mhm. waaw leeral yi am na solo dañuy jox micro bi ki nga xamante ne moom mooy 2 Giga 2 Giga moom it mu jógee ci victoire moom ak kaw Gourdin. nga bëreeg say morom macha allah nga xaw a xew nag da nga xew ndax duma ne da nga xaw a xew deuxi Ziga nga bëreeg Kaw Gourdin ñii mën nañoo wax ni peut-être ñoo la xaw a jiitu si laam wala ba léegi yéen a yéen a kii yondoo yéen a départ ndoo. ay naataango ngeen man sama deuxième combat laa bëreeg Papa Yada. i waaw. e combat bi léegi arbitre si léegi bala ñu wax palmarès nangam. Mm. léegi Papa Yade moo féete à à droite. Euh, kii deuxi Ziga moo féete à gauche combat bi nan ngeen ko bëree woon. non dañ ko bëree. si hmm? fulla si jom. Hmm? suñu borom moom la may victoire. comme nan nan la ko may. non suñu borom moom la may. victoire non si bëree si bëree lañ dañoo bëree mu daan ma dañoo jaxasoo waaw. Hmm? ma daw di ko kii moom ma teg fees. mu da ko kii c'est-à-dire. ma daw di ko. braqué Texas, fees loolu garaawul bëri la rek waaw mi fi bu yàq bu yàqoo rek dañuy defaraat oh, non man maa teg fees ah, ah, waaw bu yàqoo rek non jaru jaru soofantal bu yàqoo rek dañuy defaraat mun nañ bëriwaat eh, dëggal xaamu def nii waaw loolu day dërëm ah. jën lu muy ragal ndox maa ngi ñëpp combat lañ mi tonnerre fi tëkku naa ko du benn du ñaar yoon mi ngi nii man ragaluma loolu de eh. barke alxuraani karim mi ngi nii mm. jàkkaarloog man mi ngi barki alxuraan. Hmm. waaw kon instant pare nga pour. pare naa pour bëre ñii ñëpp. ak revanche pour kii. waaw laa la nga am na pare naa pour kii. Hmm. ñu ngi nii maa ngi nii barki alxuraan. fàttali gars yi man maa ngi def neuf combats. Hmm. sept victoires deux papa yaata bii moom a daan ak caatu yaraax. mais ay mbër la daal champion. non loolu ay champion lañ bëgg a nekk. kon ñoom nee nañ ay champion la ñu ngi nii ñoom ñëpp ay champion lañ. man nag champion laa bëgg a doon moo tax ma bëgg a bëre ak ñoom. waaw. Buldozer Zedda moom euh, mu amoon benn combat boo xam te ni gars yi xam nga gars yi léegi dañuy participer ci émission bi ndax ñoom ay amateur lañ ku ci mel ni ñoom Assane bu armée xam nga ak waa Tëngéej ji dama leen ne damay def benn plateau léegi ba ma leen ko waxee ñoom ñëpp ñu ne ma dañoo am ay question yoo xamante ni dañ koo am pour Papa Yade pour Tonnerre ak pour Buldozer euh, dafa am benn question boo xam te ne nee nañ daal làmb ji ah man xam ma jaaxal Mira da ngay joxe léegi avance ñu ne la dañoo ay dëkkaale lañ. wala ñu jël ba pare delloowaat xam nga gars yi léegi euh, marabu yi ñoom it dañuy dañuy joué seen rôle mais dafa am benn combat boo xam te ni muy Bulle Léger ak Tonnerre 2 ñu ne promoteur dafa waxtaan a yéen ba pare nee ay mbokk feeñ si ñaari combat yi euh, Bulle Léger Tonnerre mën ngeen a <laughs> mën ngeen a leeral ah léegi dama jox Tonnerre léegi Bulle Léger bu pare après Tonnerre tontu. waaw Fatma. fof bala nga soge sànq wax naa ko samay sama biir wax man avance mom bu xasse teggu sama loxo ci mbeur xol ma ci diw ak diw ak diw xam nga combat bobu non bu amé dalo gu muy jexi jaxa ci mom ngay doon wa wa parce que ñom xam nga manager am ci sama kanam dafa am programme euh, dafa am programme caché ak promoteur bi wa mais man toguma ma fi di xaar benn mbeur wax deug yaaga mbeul bu ci tapet wala mbeul bu ci galal di am dara looy xaar man avance duñ ma ko jox man musuma waxaale combat biir gaa yi musuma waxaale du ma waxaale combat non non mbokk lan ki bokkuñ dara waaw dërëm bokkuñu ko waaw combat bi moom si moom ngay yàqoo mais bu doon mën a mën kese avance buñ ma ko joxoon tey tey tey tey tey du ma taagu kenn du koy jël du ma taagu kenn dem sama yoon waaw wax dëgg yàlla. noonu nga demee loolu moom kenn mënu nga say wax lu weesu loolu wax dëgg yàlla si manager am nga si manager am sama loolu sama combat man ak Petit Niang moom nga kii di wax ay affaire da mbokk waaw te loolu yi ñoom ñoo ko suri Petit Niang moom ay gars ñoom ñoo daw yuuxu wax xam nga suri fa affaire da mbokk mais man bu desee si man kase kase kase xaalis bu tegoo sama loxo ma jaay ko si jour bi waaw non non loolu man ak Petit Niang la kii man ak moom si ménageur am nga si ñoom nga des. waaw man. Biliseer non Biliseer ñi mu la wax loolu sax ñi mu la wax tax na Tonnerre dafa tapet ñi mu wax loolu ñi mu wax loolu lu wax loolu de. Tonnerre tapet nga tapet. Tonnerre tapet nga sa manager sa manager tapet nga man neuf combat laa def huit victoire benn défaite. yaa may dégg yow ay mbëg yu nooy ay ay ay mbëg nga doon daan. duma ci du ma ci kii du ma dégg euh, bi leseer dafay fooye xal. dafay dafay xal xal lay fooye comprendre nga xamul li muy wax man côté boobu du ci sori sama ménager laay déglu comprendre nga moom joxe na accord am ne pare na pare comprendre nga. pare go nga wax na doon na doon deug ci mom rek comprendre nga duma sori ci côté bobu mais ma lay xamal ne yaa xal ma la gëna miti fuma jaar fu nee nga yaa si digg bi nee nga yaa ngi si digg bi waaw d' accord nga xamal leen beuy bu ci jasit du deggit dex ok lolu ay beuy bu ci jasit du jéggi dex ay wax la mom ñepp xam nañ ko bu ma bu am len lu may moytu ci lamb ah ni mu démé la bu demee bay tout tonnerre di tout belle des ni mu demee la d' accord nag du ma la bañal sa champion ndax danga nga prouver ba agsi yaa ngi dégg ma am retard comprendre nga loolu moo tax ñuy wax Bulldozer ak Tonnerre yaa ngi dégg mais sa retard moo ñu boole man ak yow. retard waaw. du retard retard yaa ngi si yoon bi de man maa la dab. retard la dab naa sax ku la raw yow man boo bëggee dégg xooluma nga sax man xooluma nga woon yow. ay nit lay seetaan ngay wax da ngay wax bi nga xam moo tegu ci yoon pour yow buñ ko tegee seetaan yow it ay nit ñoo koy seetaan ngi émission nga ay nit ñoo koy seetaan dama la ne voilà man dama def retard ci làmb moo waral nga def say kii bu prouver pour dab ma waaw mais dama prouver mën ñëw comprendre nga mais bul ne da ma dab da nga kii di am yenn lo da ma waa ok lan ngay rombe tonnerre ba pare soxla tonnerre. soxla wu ma nga soxla wu ma nga de man déggoo ma wax naa sama biir man amul combat bu may déggoo <laughs> loolu quoi. man aw ma combat bu may déggoo barki Seydina Mohamed aw ma combat bu may déggoo. man avance tegu na sama loxo lijjantiw ma sax mbër mi man noonu la mel naturel mais sama xel man bu doon mën ak man kase non du mën ak ñii sax barki sëñ Fallou Mbacke du mën ak ñii. kan la fi daan. kum fi daan. mu jël kooku def neuf combats dama def neuf combats. def huit victoire benn défaite. Bathie Seras numéro deux moo ma daan. waaw mais avant boobu waaw. waaw moom borom baax ñu ngi nuyu. mais avant boobu dama def trois combats. am si victoire. dama daan euh, kii euh, dama daan Gris Bordeaux numéro deux. daan Dofu Diaz. daan Boy Bargny. jóge fa ñëw dugg si kalaaf. man Mbagnick Keere Bathie Seras deux. ak euh, Boy Bargny waat ma ñëw première journée bi ma am défaite contre Bathie Seras deuxième journée bi ma am Mbagnick Keere daan ko Mbagnick Mbagnick ma ko njëkk jox défaite dem final man ak Boy Bargny daanaat ko yaa ngi dégg ma génn fa ñëw man ak Paul bu daaru Paul Kër Massar xam nga daal di koy daan mooy bi ñuy tijji Arène national daal di koy daan jóge fa ñëw ñu jox ma grand combat boobu moo nekkoon sama premier combat kii sama premier combat spécial man ak Paul deuxième ma ñëw ñu jox ma grand combat man ak alliance Birame ma fete ko. waaw ñu ñëwaat ñu ñëwaat non non. saa boobu kenn daanu waaye. saa boobu kenn daanu non non. dégg mu naan kenn daanu boobu kenn daanu. ma jógee fa daan ko bi ma ko daanee ñu jox ma bi gis na meek numéro 2 ma fetewaat ko mën nga jox victoire. combat bi dañ ko kase. barki Sëñ Fallu. moom li mu wax nii xamu si dara. xamu man ma dara boobu baa ngi si man. ban promoteur moo dox combat boobu. mais gars yi amateurs yi ñu kat ci suuf. waaw amateurs yi ñoom dañuy jékki saa di wax rek. Ah. garaawul ñi xam làmb duñ si yooyu noonu mais gars yi nañ développé xam nga la mooy wax ji. Hmm. ay Alioune Seye numéro 2. Hmm. bëri yi nekk si kaw nañ ñëw ñu bëre. Alioune Seye daf junior lay wax. Ah, Alioune laa mu mujjee bëre si Alioune Seye junior ay champion lañ parce man. no mhm. mel ne sa waay dafa lañ kon man. ñi lañ kon man de. non làmb demee noonu c'est que moom xam nit ku nekk ak sa xel fu mu toll fi ngay waxee xam nga noonu la demee moom Baay Faal la champion la mais dama koy xamal di dama koy teg palaasam six combats nga def. waaw six combats nga def six victoire. waaw man six combats laa def. neuf combats huit victoire benn défaite ay combats. bëre ay combat mais combat yi duñ doon benn parce que man ñi ma daan si làmb xooluñu sax ñii loolu day am parce que paaja mi ma mujjee daan si làmb damu bëree paaja mi ma mujjee daan damu dëkk tamu daan caatu yof paacaam champion la deux ziga mi maa ko daan maa ngay dégg mu naan ay fes laa ma jooj noonu boo bëggee mu ngi sama programme mën naa mën naa la ko tegal fi nga xool ko dama dox si kawam nii mu toog barki Serigne ba Mbacke dox si kawam mu toog bëréw maa sax moom paa dama ko téye yékki ko ba si kaw dóor ko si suuf man foog ma wax sama bopp gaa xamal laa may dama si daan ay champion ñi ay champion lañ de samay morom lañ mais nit mën nga bëre dix combats kii bëre cinq combats doo leen bokk yoon ngir moom fii mu daj yow boo fa dajee taxat la neen lul adversaire ñoo bokul war na umul xëy adversaire bu bokkul tamit nga danser adversaire ba pare ñooñu ëbëti ko dar kaw lool yéme na farma. danser adversaire. waaw nga ne nga ne ñooñu ya ngeen dan nga ne ñooñu ñom ñooñu gaw ci gam ñoo ñoo raw ci lamb teew ñu ya ngeen dan ma de kon. wax dañ ngay déglu baay. déggoo de yow champion wa man champion la mais manam bok ñu yoon. lan mo ni ñoo bok fi. mar jégal waar nak de.

Paa am daan naa ka. nu mu tuddati bulon. bëri nañ ma daan ka. Mhm. waa boo jëlee daa mujjee bëreel. xeeru ngor ak xeeru ngor. ak xeeru ngor noonu la demee. te ñu ma daan ñu mbër ay champion lañ. loolu dañ koy nangu te yàlla tax. gis nga laama man soxoruma man du ma soxore mbër. man tey yow boo deful woon dara wala dara dama naan mbër. sa yoon nangam nangam. mais champion nga fii ñu fi toog ñëpp ay champion man xeebu ma benn mbër. lu déglu waxu ma ne ay xeeb mbër man xeebu ma leen ngeen xam ne xeebu ma leen ñu fay ma lo xamantene ni jar naka rek ngeen xamne man fay bu ma leen dañuy beure ci meegu beure maye ko barki yalla buñ ma joxe lu ko jar ma beure ñi xaas bi la siy xool mais xooluma leen ñom toner toner champion la daan na fi ku ne am na fi guddi bu ne daan fi bu ne ta mom champion la tay bi nga yalla may ci lamb bu ko mayon yeen ma leen nga wax mu ngi def ay joom di daan ay champion man damay xol mbeuri mais ñi ni ma ñom du yoonu làmb quoi. non Tonnerre question déggoo la ma la ñoom ñii ñi ñëpp ay champion lañ Fatma mais man ñi ma war a bëreel ñu ngi si kanam man lu weex laay gën a séentu leneen non non déggoo ma de bul diviser wax ji ñi néew ma ñuy weexuñu de. non papa papa Yada moo juum nee na daa bëgg lu wax ba pare di laal laaj Aliou Seye Junior moom moo juum non da bëgg lu weex am na yeneen yu wax yi. non kan la fi mujjee bëre bëre wu fee Tapha Mbeur. Tapha Mbeur la mujjee bëre fi ay champion Alioune Seye daa fi ay champion bëre fi ay keneen si bëre ñëpp dañ ko daan. ñooñu ñëpp dañ ko daan. waaw Tapha Mbeur mu fi ay champion kan. yow dama la daan yow waruma. waaw loolu garaawul lu mais su yàqu sax dañuy defaraat fii lu yàqu dañ koy defaraat nu ma daanee noonu laa mën a noonu laay ñëwaatee pour moo wax la ko loolu sax moo ma gën a def champion loolu mooy gën a tax. kon maa def champion kon joxal micro bi. sëñ yow man munoo ma def champion dama ne loolu mooy tax may gën a góorgóorlu. ndax yow lu yàqu dañ koy defaraat moo tax ma bëgg la daanaat yow champion day am. yow loolu champion un un loolu dara du ko dindi xamul tax xamul tax dara du ko dindi loolu si war na alxuraanul karim buñ laa xooma jàngal la bëre jàngal la xeex jàngal la lépp. du ma sax moroom si bëre parce que yow yow yow Papa Yade nga ma xam naa la du yàgg moo tax yow soo waxee loolu parce que weesu naa la. xam non yow soo waxee loolu sax day mel ni leneen la yow xam nga ma xam naa. bu baax bu wax loolu xamante nañ bu baax a baax. xam na ma xam na ma moom xam na li muy wax moom. xam na ne moom moroomam. moo tax barki alxuraani karim da ngaa baax rek di wax yoo xam ne laa mujjee ñëw ndax lu ma si génnee rek billaay wallaay taala ma dox sa kaw nga toog ah, waaw waaw na nga dox sama kaw ma toog waaw loolu garaaw na nga barki lu raw loolu ñeme naa ko def yow a barki alxuraan kenn bu raw loolu ñeme naa ko dafa ak yow leneen lu dul xeex combat yi ma mës a bëree a yomb. loolu du dërëm. moo tax ma ne la bu yàqoo dañuy defaraat moom la ñuy góorgóorluwaat pour defaraatal la. juróom barki Seydina Mohamed man ba ma amee 12 laa commencé bëree. waaw man bëreewu waaw ñun du ñëw judd ñun wuñ di bëree ñun dañuy defar waaw awuma dara yu bëree man man ko ñu làmb laa juddoo man parcelle laa juddoo unité laa juddoo barki alxuraani karim yow da baax rek. la. billaahi. champion la man nangul naa ko am mais mbër na nga nekk si yoon bu taareel sa yoon. du ma ko mos a taareel lébu bi ngay gis nii day xeex day bëre day matt day gàncax day def lépp. naawal ba teg si air bi boobu laa gën a soxla ba teg si air bi boobu laa gën a kon yow taggoogoo si air bi rek baaxugul. gars sunu yoon sunu kanam la ñuy xool mais bu booyee nii nii. ak Serigne ma man damaa ragal loolu déggoo ma ne la xanaa yow déggoo lu ma njëkk a wax. man parcel la deuk wa parcel dañ ma yónni yàqamti ma barki alxuraani karim dañ ma yakar billahi wallahi taala kenen ku dul tonnerre la la wax ni kenen ku dul bul desert wa laa la la wax nga naan ma yuma xamul ah fan laa làmbatu man may bëre nga naan man làmbatu man dama damay bëre man fii ak deux jours ma am combat boo ko gën a dee man làmbatu ma xam nga yow yaay nekk di làmbatu ndax yow la jox combat nga naan kii daa nekk si daa suuf rek daa kaw rek daa dugg si teen rek dugg si teen defal ndànk ngeen ni da ngay soo nekkee mbër da ngay correct yow Ndongo Lo bu la bañul woon nga ko bañ yow nga taxaw fii di wax. booy pour le moment waxalal sa bopp. man lépp laay waxal yow miy làmbatu. lépp laay waxal man fan man ma tal ay làmbatu yow man ma bëree neuf ko mbaa nga naan yow xam nga ay xale lañ. biir na ma ne Papa Yade muy toog pareegut sax pour pour pour ay ramas ak yooyu kon rom na. bàyyi moom déggoo ma ko bu yàqoo dañuy defaraat. waaw yow ci defaraat nga toll. waaw moom bu yàqoo waaw defal ndànk yow yaay defaraat. voilà yow. yaa ngi jël affaire bi di ko bëgg a moomale sa bopp di ñu ko joxaat defaraat loolu say wax la. yow yaay defarwaat loolu say say. mais yow da ngay defarwaat pour daan waaw d'accord loolu sama problème la man ak sama staff comprendre nga ak ñi may entraîné mais du yow mais man bëreewuma ak yow yow xam nga ko sax yow man bëreewuma ak yow yow yow li nga wax moom dëgg la yàgg nga may laaj. yow moom eh, yàgg ngay laaj. tonnerre man ragaluma ci whatsapp yeeg groupe yeeg. foo taxaw man dee naa la jën du ragal ndox li jënd ragal ndox. dama lay man damaa ragal fu ma jëm man damaa bañ bu ma damm yow. yow yow da ngaa baax rek da nga maa a damm yow. booy yow da ngaa xoolaatal fi ngay teg sa tànk damm eh, ma yow. kii barki alxuraan kenn boo bëriwul ak man tey déwén di bëgg a bëri ak man. billaay wallaay laa la waatal man maa la wax loolu tey fii. Fatma. waaw moom moo défier quoi moom moo wax xam nga deux Giga mu mbir mi soog a julloo c'est normal te dafa bëgg a yegg fi gars yi yegg ñun ñëpp dañoo bëgg a yegg fi gars yi xam nga ñun ñëpp laa gi ñuy dund te ñun ñu toog fi ñëpp ay champion gañ ay Baye Fall gañ mais deux Giga li waat bu baax. rekk kii dafa xiif de kii dafa. barki Seydina Mouhamed noonu laa wóor na yàlla suñu wallaahi wataalaahi waaw man gis ma ni waaw man ma ni toog nga ne yaa ëpp doole yomb na loolu moom yomb na loolu moom ku ku ma ko wax la koy nangul boo ku ma fekk ma toog nga ne ma yaa ma ëpp doole ma nangul goo ko kii si say ndambe gaa ko gomb say ndambe xam nga say ndambe ku dëkk passé waaw waaw fa gaa ko gomb moo jugee mom mo jige Malika ñew sama koñ ma dalal ko wan na ko ñu fofu la ñuy dundee waaw dama ko dalal ne ko ñi fa ko fekk muy gar amul say dama seet. dama weeru ma dé dama dem Jokalante dama jógee géej rek. dama seet sama benn xarit am di dama seet sama benn xarit am di moom côté boobu nga dëkkee. nga maire bi bajana mu ne nañ jaar sama bàjjan ñu ñew ma fekk ko mu tok di dugay boppam xam nga yokot gor gor ñu ñëpp dañuy gor góorgóorlu te ñu ñëpp. xam nga ku si nekk am nga fo tek sa bët ñun ñëpp ñun ñëpp ñun ñi nga gis ni ñun ñëpp ku si nekk am nga foo xamante ni fa nga teg sa bët xam nga ñun ñëpp ay champion gañ xam nga ñun ñii amul man bokk xeebuma si kenn même ku ma si xeeb tamit man amul kenn ku ma si xeeb ci ñoom man nga am bëggaay dund gi ma wax rek avance du yàqoo ci sama loxo man waaw combat moom déedéet du yàqoo sama loxo waaw waaw muy keneen ak keneen ak keneen muy Papa Yada mi muy Tonnerre muy keneen ak keneen waaw mais deux Giga xeeb naa ko. wax dëgg yàlla su ma su ma la naxul rek su ma la su ma la naxul te wax nga dëgg te wax nga dëgg deux Ziga deux Ziga deux Ziga mi ngi soog a jug te ñun dañoo def suñu ay preuve Fatma mais man soogu ma jug de Fatma ñun dañoo def ay preuve soogu ma jug de man dama jël tournoi bëri fi ay spécial bëri fi ay grand combat génn si xam nga kon man damaa def sumay preuve kon man war naa xool mais man wax dëgg yàlla man sama ren mooy sama option muy bëgguma bëgguma kii bëgguma bëgguma mbëri naan ay pareñ Fatma mbëri naan ay pareñ man bëgguma ren man samay morom laa bëgg Ah, waaw combat met Tonnerre 2 muy moo ko tege neex Papa Yade mii moom moo ko tege neex muy nekk fii di di wax waxi tapatem yi ay dama noo xool naa ay ay ay Alioune Sèye ay xool naa keneen ak keneen te say moromu góor nekk fi. Hmm. Alioune Sèye góor du jigéen de. moroomu góor yow sama yow doo sama moroomu góor moroomu taalibe nga sama mbokku taalibe nga barki Serigne Ba ma mbër yow sa kanam dafa lawet si man. leeru alxuraan gisa gor dëgg day ñaanga kanam gi lendam kurus yow mi yow tapen nga yow yow bo demee ba jàkkaaroo man ni ma wax ay affaire lamb sey nak ma man waso morom barki Serigne Bamba mbake yow de goma de. gis ba xolal kuti de yah da nga gendu for xaalis. de goma de kuti kuti la lay wax. du yah yow ginaaru da nga gendu for xaalis yow ba nga yow. man doomu jeun la doomu ndox damay mbaale di buddi ci gali fu di japp mo rek bu bes tax. di ka lakka di lekka di buddi di am doole ñu ne boo duggee si man. barki Serigne yooyu yëpp yow la rek. yooyu yëpp yow yow la yow yow da ngaa génn booba sa yow ngay génn di wax xool sa yoon taapa taabal dem sa yoon da ngay génn di wax papa yàdda bu dee am nga fit bu dee am nga fit bu dee am ah? nga fit nee nga aw fit bu dee am nga fit jëlal sama avance ñu bëggee yow dama jël sa avancé dama la xay may yow jàppale duma la daan la maalam man. mbër Papa Yade Papa Boy Papa Boy Djiné ak Papa Yade Papa Yade ñun góor yaa ñun même bu dul fii suñu koo fi daan yow. li ma ma benn champion. yow du ma nekk digg gi ma. kon noppil nga téye sa gémmañ yow. yow yaa fi nekk digg man du ma nekk digg bi mu mujjee bëreel dëkkul caaray. man du nekk digg wala wala bëreewul ak kooku booy Brise de Mer moo la man da nga rëcc yow taapen nga. waaw moom loolu yomb na ma toog nii nga taxaw naa ma yaa ma mën a taxaw naa ma taapen nga yomb na. barke umul xëyri say xarlu man sama jikko xam nga kan nga sama jikko xam nga kan ngay fenn. booy ma toog yow papa yàlla yow papa yàlla da ngaa yow yow da nga def sa bopp yow da nga def sa bopp benn champion moom champion la moom laa bëgg a doon moom laay tarbi ay champion nga déggoo ma de champion laa bëgg a doon billahi wa rahmatullahi kitaab sama avance boo ko jëlee ma def la lu metti barki Serigne Bamba fi ngeen fi ngeen dëkkee nii fi ngeen dëkkee nii yow ko da nga xiif fi ngeen dëkkee nii lamb ji ngay nekk di dara ngay di wax jàkkaarloo di añ ci ceebu tooy xib di teeral jën di ka jaam jaamu yàlla yi di ka jaay jaamu yàlla yi di si am ay tuyaaba dëkk si taadu géej bi nga dama xiif yow ana nga dof si juróom ñaari penje yi xiif yëpp moom nga. Fatma nii ñëw na sama gaale. waaw déggoo ma yëpp yëpp loolu nga ñuy baaxoo moom dama xiif wala déet. déggoo ma ñëw na fa di def émission. déggoo ma ah, man nga wax dama xiif man déggoo ma wax déggoo ma wax nii nee maa yow bokkuñu. kan moo ñu wutagee xam nga lu tax. waaw waaye man yow yow foo bee nga. yow doo mbër. barki Serigne Ba man du ma mbër. <laughs> waaw ah. waaw say morom waxoon nañ nga fi loolu. garaawul waxu mbër rek. man foo bee yow xaalis bi waaj a te man boobu laa nag. waaw yow égo nga kon reglel bi waaye te boobu sooteegul kon reglel kon boobu mu ngi ñëw rek reglel barki Serigne Bamba Brise xolal sa yoon uh-huh. man du ma sa morom yow xam nga la nga man tëkku mbër te taapen nga man du ma tëkku man musuma tëkku mbër man li si fekk yéen mbëri fekk ma si man mën lay la ba nga nooy nepp <laughs> yow mu ñu xeexoon nga xam ne ñu xeexoon nga bàyyi wax say loxo say loxo daa gàtta waaw loolu moom yow amoo baraas ma doo mbër loolu moom ku koy wax yow sa ah. baraas matul yow mënoo xeex manuma xeex. barki Serigne Bamba papa yaa. ni ma fi dajal a bëre ma leen duma daan sa xeex baaxul. sama xeex baaxul dajoon nga sax ñi ngay seeraan nii nga gisee dañuy ree dañ naan wax nii parce que xamul tax yow li wax nii xamul tax yow li wax nii ñi koy seeraan bu ñu ko déggee bu ñu ko déggee bu ñu ko déggee danaa ko xamul xamul ma wax na nga ngay wax ndaf leen bi ma koy jël maa booy bee ñoo ànd bi may daan usine doole ñu di ma jox un million. drapeau bi xam nga kan lañ ko tuddee woon. kiiw grand théâtre directeur du grand théâtre usine doole ma daan ka ñetti yoon si benn làmb. yooyu yëpp du cëz. waaw yooyu yëpp du cëz. yooyu ma sa morom man ma tarbiyo man du ma toog fii man man du ma toog fii man man du ma toog fii di nga wax champion yi ma daan. du ma toog fii di nga wax ay mbapat ay nangam ak naan. man Malika laa dëkk. man Malika laa dëkk yëmbal kër Moussa laa tuur la si mbalit mi du ma sa moroom. yow da ngaa dof sa moroom man ma bëgg sa yoon neex. yow mbëbës yow mbëbës yow continuer lay gaare. baax na yow de barki Alxuraan sama avance boo ko jëlee bàyyi bëgg. sa avance yow bu ma ko jëlee. boo ko jëlee da bàyyi. da ngay wax daanu sere kon yéeg si avion da ma si gaw daanu sere yow sama avance boo ko jëlee papa yàlla bàyyi bëgg. est-ce sa kanam dafa waaw coow ji loolu moom loolu moom ko ko wax ma nangu. waaw alab lébu bàyyi man ceeb bu tooy. xibaar laa mel mais ay bu am a am bu arbitre bool bi sifflé te delloo ginnaaw. man man loolu bépp mbër bu ko mu yow keneen ak keneen man bu arbitre te delloo ginnaaw umbale non ma xam ne yow tey bu ñu doon bëre si laamay da ngay sonn yow mënuñu bëre ma ak yow parce que xamoo ma ne mu umbale yow yaa ma xamul moo tax nga toog di wax yow yaa ma xamul yow xamoo ma moom moo ma xamul moo tax mu toog fii yow dafoo fi dara yow ban champion nga fi daan neel champion bi nga daan yow daan kii dafa bëri wax kii dafa bëri ma la wax kii du mbër gémmañ boo ko tëjee day xeeñ damay waxaa yow yow six combat nga def six combat nga def man maa nekkul sa morom six combat laa fi def kanaka laa fi man maa nekkul ma ñoo daan yaa la noppi yow yow yaa la noppi yow ki daan ngeen xam ko nekk fii di bëri wax naan waaye kii brise de mer rek la fi daan bëgg brise de mer booy ñoo bëre noom mbapat fii tëngëj bu laan ñëw dañ naan may drapeau mu dem ñibbi man ma sa morom mbër yow man maa du sa morom yow loolu nga teg ko fan yow nga dof <laughs> yow nga teg fan nga teg ko maa mën fuuf yow yaa mën yogal boo ko taxawee yogal boo nekkee di nga wax dañoo takku ngeen taxaw barki yàlla sa kanam dafa lewet bi nga bu takku ngeen waaw yow sa kanam dafa waaw yow sa kanam dafa sama kanam dafa yow ngay tapet yow yow sa kanam dafa yow waaw yow doo tapet dama lay yóbbu géej mais li ngay wax ni yëpp jóge sama avance yow mun demoon yow mun tax say yow mun tax ñëwaat ba waaw yëpp garaawul yow da nga xamul mun tax xamul lépp bii man athlète laa moo tax ma xam nga yaa ngi naan yaa ngi naan lekkuma mais chaque jour athlète laa man damay fee di daw gars dañuy wax mais yow dama la bëgg a xamal ne yow dama sa moroom man loo si wax baax na mais yow duma sam moroom yow ngay tàppe di yow nekkal fi di tëkku ay mbër yow dafa dara si làmb ji

waaw am na combat léegi damay bàyyi Omzo léegi nag laata ñuy waxtaan ak gars yi wala kàddu wala jiraay Assane Assane Ndiaye Bawol barki Serigne Mbamba yéen si ma ma bëgg a waaru man kenn musuma gis lu mel nii gars yi kan dañuy see ay dramatique fii léegi see ko dramatique yi ñoo fa nekk mais ñi aptu wuñ mais bulldozer mi man maa ko gën a aptu barki alxuraani karim kii soo ma xoolee xool ko xam ne maa gën a nekk athlète billaay wallaay talaay barki a karim boo ma ko soxla billaay kaa ñu suñu barki sëriñ Bamba Mbàkke kaa ñu suñu dama ñu simmee ko ñu xaaral ñu simmee ko pour que moom mën a yor yaram la. duwul mbër yi alxuraan karim waaw yéen ngeen laaxee ngeen naan muy ma xamul. waaw yéen seen biir yi bàyyi naan muy ma xamul. yéen laam si yéen. yow boo jëlee la boo jëlee la bala lay dóor daal dóor la lay gaañ sa yokk bakkan yaa yokk wóor na yàlla mbër mais kon papa yàlla moom mi cee daal macha allah man ko papa yàlla ba nu suñuy dina si naaye bu ñu xool bu rafet ñeen pat yow nag dina kii boo xool xam ne liggéeyoo ay jéego dara man ñu ñoo fi nekk yow Fatma da ngay nangu parce que du ma sa morom yow tàppeen nga sa combat yi yaa dem da ngay yooru yow tàppeen nga daanoo fi benn mbër yow ni ngay bëree barke yàlla ma gis la boo mu mës a bëgg ki ma daan sax dama koo duma parce que yow ni ngay bëree képp ku mu mës a bëgg dama koo fi kenn dama duma sa bëri wax yaa ma a taxaw naa la mën nga fi kan nga def six combats donc six combats la balaa laa daan ay champion laa fi daan waaw kii boo nga génne si tam six combats laa six combats laa fi bëre. champion six combats laa fi bëre daan si làmb. ay dama am jotu di di daan. kon nga noppi yow koo fi daan yow na fi daan. nekk di nga wax booba mu daan moom. man du ma di nga wax man yëg naa sànq ñi ma demee ba si pol si affaire plateau yi nii sax. <laughs> yow booy yaay bëgg a ëppal. yow da teg sa bopp foo yeggul jamono ji. sa kaw. du ma sa moroom moo tax ma teg sama bopp sa kaw yow man maa dul sa moroom si làmb yow man maa dul sa moroom si làmb yow. yow ko daan si làmb. yow kan nga daan si làmb yow kan nga nekk diw man kenn. man a bëy ah, bu jummi laa man may bëy dëkk si taatu tefes yi maam ku ma laa mbaay di sama maam bu ma neexee doon rab Eh. Eh. moo tax ma jaaxal la yow du ma sa morom maam maam. dañuy defar rek. booy déggoo ma ñu ngi jégaluwaat bu tamit xam nga ñu ngi jégalu bu baax a baax gars bu fekkee dañ fiy wax loo xam ne ay nit ñoo ñuy seetaan bu fekkee dañ fiy wax loo xam ne nii dafa xaw a tranché nit ñi ñu ngi jégalu parce que ñi fi toog ñëpp ay jeunes lañ laama mooy suñu métier mais laa laama nag waxul dëgg quoi parce que ñu tëngeej lañ dëkkee route bi dafa métti mais banlieue yooyu na ngay ñëw xam nga lekk sa ñaari hamburger niwi gars yi ree la nga ëf sa dënn taxaw ne champion buñ nga amoon barki Serigne Bamba fii Balla Gaye toll la ñuy toll jàppale bi ñu am ñoom man Malika laa dëkk Malika man kenn du ma jàppale maa jàppale sama bopp maa la gën a jege géej man Malika laa dëkk la man amul ku def si man dërëm parce que góor yàlla laa bàyyi rus naa fii ñu ñëpp a yem rus naa taxaw yeewu fii ñu ñëpp a yem eh, fii ñu ñëpp a yem fii ñu ñëpp a yem ay mbëri ndaw fii ñu ñëpp fii ñu ñëpp a yem fan sa club barki Serigne Bamba aw ma ko ñëpp yam kon demal udi ko waaw booy nga régler man xam nga tax bo bëgguma nga dem udi man du sonal doomu aadama parce que loo bëgg yaa koy oto ak sport individuel affaire individuel parce que bo duggee si géew yaa sa morom góor loolu yow kase ga kon nga noppi Brise de yow làmb defoo si dara kenn xamul la yow sa combat bi bëri ni moo nga sa yow yow na dafa dof man dafa am sama dafa am bëgg yegg ñi buñ nexé am bëss ci baale bi lañ dëkk man tëngeej la dëkk ta ma ngi def sama preuve gaay dama gis yow fi yow ñi fi tok yow ñi fi tok ñi fi tok ñepp raw parce que six combat kese nga wa waaw ñi fi tok ñepp mo raw mais garaawul mais ñaar combat la nekk fi di wax man duma nga nekk fii dégol ma ba bu lo sar yow boy bës yow boy ba lay may bës yow kan nga ngaan ma mo yow nga dof man mooy am bës sa yow xawma nga barki sëriñ bamba boobu xaw ma simbu kan nga kan boy moy def ay lëta bàyyi yow ba ma doon dëgëraat rek booy booy ba ñuy jàpp. booy sa bopp ma def bu ma def bu ma demoon ba. dëgëraat yi daal leen yéen ñaar ñëpp ku ne. waaw dafa mel ni dafa mel ni waaw Mira ndeysaan ay waay ay frère bi ñoom mais dafa mel ni sama mag moo fi nekk de Assane Ndiaye. dañ ah. waaw euh, wax dëgg yàlla j'espère que ni plateau bi ah, wax dëgg yàlla am na show ñoom ñi ngi waxtaan ñi ngi kii te amul benn kii ah dérapé fi gis na Amina waaw mais dafa am koo xam te moo nekk si ligne bi ah, mu nekk suma frère nekk suma xarit nekk sama lépp mu taxawal combat yu am solo muy Assane Ndiaye boroom Bawol production. moom la ñuy dugal parce que dafa am combat boo xam te ni dañ ko doon dégg taxaw na wala taxul te Assane moo ci nekk te ñun xam ñun Mira lu leer si la ñuy si la ñuy dox Assane Ndiaye mhm. maa ngi sant bu baax a baax frérot. waaw maa lay nuyu di nuyu sa invité yi. Mhm. ak euh, ak Papa Yade nga wax ak. Euh, deux Ziga deux Ziga. waaw sa plateau bi riche na rek. gis nga loolu kon. non yow tamit soo ko waxee dëgg la. riche na lool macha allah. Mhm. Euh, mhm, mhm. waaw te loolu moom man ci laay dox. voilà. waaw mon frère. a waaw xam nga yow macha allah dañ fee def ay journée yoo xamante ni dinañ si ñëw dañ ñu wax yan combat nga taxawal ndax Infos mi dafa am yeneen concept yoo xamante ni dañ koy def muy entre promoteur ak mbër yi parce que ñun ñëpp ñoo far mais dafa am ab combat boo xamante ni dañ doon dégg ñu ne Assane Ndiaye moom moo ko bëgg taxawal muy ci diggante Tonnerre de ak Bulldozer mën ngaa indi mën ngaa ñëwaat ci loolu noonu est-ce que Assane bëgg na combat boobu. non taxaw. Mm-hmm. waxtaan nag ménageur tonnerre. Mm-hmm. waa déggoo nañ ci kaw yi kàddu ba pare. Mm-hmm. incha allah rabi combat bi dina taxaw même maa ngi ciy xalaat léegi léegi léegi nii sax am leneen lu ma ci bëgg a def. mais combat moom day taxaw si kàddu yàlla. kon mën nañoo jàpp fii daal ni Assane Ndiaye Baol production taxawal na combat tonnerre ak euh, ki nga xamante ni moom mooy bulldozer waaye doo leen tàccu loolu nag yéen ah tàccu leen loolu. <laughs> maanaam kay bu bu leen neexee mën nañ def face à na. bu leen neexee mën nañoo def face à face. waaw waaw ko kon kon may nga ma première face à face bi. non may naa la ko en direct. <laughs> nga ko en direct mais Papa Yade tamit mi ngi fi toog de Papa Yade parce que xam nga wax naa gars yi giri giriyee na leen te moom depuis combat ak papa euh, depuis ak moom ak papa boo jinne ba léegi tooyewul xaftaan bi. te moom nee na Alioune Seye te moom nee na junior la soxla. papa yàlla nag dama koo mere lool. Hmm. waaw lu leer laa koy wax xam nga xale boo nekkee ci yoon. Hmm. da bëre. Hmm. mooy mooy mooy mooy mooy tax nga dem mooy tax nga am yoon. tëgg naa ko moom Pape Ndoye ba joxe avance ñu ñëwaat ne ma bëreetuñu. Ah, tëgg nga ko ak Pape Ndoye nga jox ko avance ñu ñëwaat ne bëreetuñu. ñu ñëw ne bëreetuñu delloo ma sama xaalis. ok. def na ko aussi mook euh, Fallou njaay ak. anti mm-hmm. mu ñëw na bëreetul. Mm-hmm. nit ñi nee na bu mu bëre. Mm-hmm. mais su bërewul ak moroomam yooyu kan lay bëree. ok question la te dina ko répondre. combat am ak dara dàq ko. combat am moo gën a neex. combat bu espoir bu am nii. combat boobu bu ko gën a neex amul. ndax tellement nii ñoom ñaar waxuma la dara mais dañoo jaay combat bi ba pare. Mhm. mais kon na wane boppam bëre ndax xele bu am talent la xele bu nit ñi bàyyi xel la. Mhm. mais am na yoon yooyu bu ko jëlee. kombaam mhm. làmbam day yàqu. am na ñoo xam ne nag dañ lay yàqal sa làmb. ba pare boo leen ñaanee cent mille francs benn yoon. du ñett. comprendre nga xela bu nit ñi bàyyi xel la mhm. bu jëlatee combat na ko respecté bëre mhm. làmb ñaar a am bëre daan ak daanu dëgg la am na avenir trop mais xamut moom avenir bi mu am loolu laa ko meree ok xamul avenir bu mu am te am na avenir bu baax a baax a baax ok voilà mais est que tey pare nga pour jox ko avance pour mu bëree la non mënu ma ko jox avance ndax suñu collègue Fallou Ndiaye mi ngi ak moom ok sañu ma sax keneen aussi sañu ko. dëgg la mu xam loolu. dëgg la. yaa ngi dégg am na avenir pour bëre su ma maay mooma. ku hmm. mën a doon damay bëre daan ak daanu ñoo am. dëgg la. mais na bëre wane talaam wane li nekk si moom. Hmm. parce que day dem si ay tournoi. si hmm. bëre ba jël ko. waxatuma nag benn combat. dëgg la. mi ngi noonu ñu ne ci ginnaawam naa bul bëre lu mën a am na bëre. su daanee day dem bu daanoo dañ koy tëggaat mhm. mhm. tamit mi ngi fi toog. deux Ziga ma koy encouragé bu baax a mhm. bëri na lu neex daan. Ah. tellement nii Papa Yade bu bëree woon. mook deux lan moo gën a neex. mook deux Ziga Papa Yade deux waaw. ay morom lañ. dëgg la. mi ngi noonu quoi. mais Assane. waaw. premier numéro nga woote taxawal combat. Mhm. te xam nga kon lii archive lay doon. archive lay nekk te combat bi nee la am na lu ma ci xalaat léegi nii am na leneen lu dàq lu ma ci nam. ah en tout cas frérot kontaan naa ci yow. jaajëf maa leen di féliciter di mm-hmm. encourager booy yi ne leen nañ ci bëre. Mm-hmm. làmb ji xale bu ci am talent. Mm-hmm. xam nañ ko. xale bu ci am public xam nañ ko duñ tëkk mbokk combat bu neexul. voilà. waaw kontaan naa ci yow frérot. jaajëf yàlla yàlla def waaw wax dëgg yàlla ñoo ko gisandoo du lu ñu fabriqué du loo xamante ne dañuy toog ne lii la wala nangam Assane Ndiaye Baol production de li mu wax ni gëm naa ne yéen ñu koy dégg xam ngeen lu dëggu la parce que pour une première fois ah ñu ngi koy soog a def plateau bi dañ nee naan dañuy fo rek gu ñu waaw waaw promoteur bi dugg ñu dugal ko direct mu ne ma combat bu la neexee nga def face à face taxaw na. kon nag lépp ndimbalu suñu borom la di wax yéen ñu ñuy seetaan mbër yi ñuy seetaan ni lañ ko fas yéene defee bëgg nañ képp ku ñëw bala ngaa ñibbi di nga yóbbu avance wala sa manager dina woote wala promoteur bi dina leen yóbbaale mais nag damay bàyyi ñaari mbër yi nii te lii xam naa ni drapeau inforé mi lay doon mhm. damay jox euh, damay jox bulldozer ak tonnerre de ba xam lan lañuy wax ci loolu après euh, Papa Yade Assane Ndiaye am na lu am solo lu mu wax diñ ci tontu bulldozer waaw Fatma loolu dañ koy rafetlu bu baax Assane Ndiaye du mu dugg def nii parce que man déglu rek laa doon def te ba léegi nii su ma génnee fii dinaa woo sama manager waaw su ma nee manager kee kay confirmé na parce que ñii ba léegi wóolu ma gën waaw non parce que xam nga rek léegi manager bi léegi ma njëkkoon na daf ma njëkkoon ne taxaw na si ngoon gi guddi gi mu woowaat ma ne ma si problème manager bi waaw kon jeex na waaw kon wóolu ma amatul dara ñun duñ siy wax waaw. léger dama bëgg nga xool ma ndax man da gis ci man daray ragal ba naan gëmagoo sax ne taxaw na sa ménagère da nga wax ci moom benn wax bu am solo danga ne kontaan nga ci moom ndax dafa yàkkamti ñu ne ko avance ngi mu jël yaa may dégg mais lu mu yàkkamti yàkkamti hmm? du def dara te diisoowu ci ak yow diisoowu ci ak say mbokk waaw wala déet comprendre nga ñun dañoo am ay kilifa. làmb ñun ñooy entraîné ñooy dugg ci géew bi ñooy def lépp mais dafa am ñu topp suñu ginnaaw comprendre nga dañoo am ay kilifa bu ñu nee waaw rek dañ ne dañ naan waaw bu ñu nee déet bu ñëwoon tey ji bu ma àgg woon tey ji ni ma doo bëreeg biir de serre lu ma bëgg bëgg a bëreeg yow damay jël loola ñu wax appliqué ko. comprendre nga. yaa ma kon wasalaam bë bëri wax ju bëri nag. bëri wax la Bulldozer aw ma lu may bañ ci moom. déggoo li ma la wax aw lu may bañ ci Bulldozer. Hmm. aw ma lu may bañ ci moom. aw ma ko de. waaw xam man moom. li ma ko lay fooye. Mhm. waaw mais béy tamit mais béy tamit bu bëggee jéggi jéggi dex. day moytu jësit. xam naa loolu. ku musu xool ko. man dama encaissé ba sonn saa man man dama encaissé ba sonn saa yi saa yi waaw loolu moom xam nga xam nga tey nit ku nekk xamal sa bopp rek xamal sa bopp ma xam sama bopp. xanaa man seetaan waaw lamb ji yar nañ yar na yàgg man seetaan man seetaan seetaan naa say combat. seetaan nga samay combat waaw say combat waaw seetaan naa say bu baax. yëg naa la si. Mm-hmm. Mm-hmm. maanaam comme wax nga fi ab kalaaf léegi kalaaf bi nga duggoon du ñu tonnerre. maanaam kalaaf boobu mën naa ne booyee ca nekkoon yaa leen gën a dëgër mm. ay mbojo mbojo lan mm. non ay mbojo xam naa li ma ay ah, kalaaf yi booyewuñ moo si wax Fatma Fatma Dia man kalaaf yi booyewuñ moo si wax sax si favori kenn tudd ma si woon bid waaxi wagaaxi wal kitaab bi kenn kenn kenn kenn tudd ma si woon ma ñëw génn si su sant yàlla la bul soxal mbër yow champion nga ndaanaan nga sant de fii combat moo ko Youssou Ndour maa ngi stade toog waaw maa ngi saa toog di seetaan waaw ñu jox ko victoire ah man jour boobu jour boobu dama kontaan parce que yëf mu daanaa nga def dafa bëggee ak Youssou Ndour dafa war ne sa Youssou Ndour ah génn nga mais doo daga bu ma taxawee sa kanam mooy loolu champion ga saa de loolu laa bëgg si mbër mais na nga fexe nag ba loolu noonu nga wane. waaw boo jëlee avance bu soobee yàlla bu jëlee avance loolu nga bëgg yow waaw am benn problème xam nga comme papa yaa wax léegi xam nga tey maanaam duñ nekk ay combat naan diw combat yi la bëre yaa ngi dégg moom six combat la bëre kee bëre nangami combat ne neuf combat la bëre en tout cas kee bëre na neuf combat mais moom combat yi mu bëre combat yu baax la non non bàyyi papa yaa mu toog papa yaa bàyyi mu toog papa yaa waaw Papa Yade kenn nangu kenn kenn wedduwul champion. waaw taxaw ma ba tey ne Papa Yade du champion. tax nañ wax man ak yow. te nga bàyyi Papa man Papa Yade classé naa ko. Papa Yade naa ko. bu yàgg mais. Ah, waaw. Ah. non non non non non moom combat baaxul. Ah. xanaa da dof. combat baaxul nga wax. Ah. non non ñoom loolu ñuy wax ñoom loolu ñuy wax parce koo gis mu toog man boog du ma ngeen xeebal ñoom seen ay combat. Liss la war a bëreel. Konia eh, eh. moom ay. non maa Koña nekkuñu ay adversaire de taille comme ça suñu taxawee du neex. Koña maa moom bokkuñu taxawaay quoi xam nga kii exemple man dama apt man exemple man léegi ma mat deux mètres. kii matul un mètre quatre vingt. Eh, kon maa moom buñ taxawee du neex ah ko kii matul kii. kii matul un deux mètres matul un suñu combat maa moom du combat de taille moom am na combat. jox ko micro bi koo ñaa ni. kii léegi sama saal lay ñëw di fa laaxatu caserne. kër kii man ñi ma yor. Ah. foofu lay dem di laaxatu. teel ah. dama laa xam bu baax. xamoo ma. yow doo pele ñaa yow da nga neexal li yow li jëndi ak tonnerre. Eh, xool xool dèjà xool ko solo ngaaka bi mu sol. yow daanaka sàmmi woon yow. man ngaaka man ngaaka deux gars mi day ne fii di waa kii tonnerre yow tonnerre du moromam. du ma wax ak kii man naa bëree spécial ma man su moo ko yow am yow de si amoo doole yow métti woo. man métti waaw ma doole ñu ko waxoon yëpp bëri ñu ko waxoon jeex ñu ko waxoon bëri nañ man ak moom ban laalee ba pare après man dama ab bokkuma ak yow man nit la ma deux mètres yow yow moo tax un mètre soixante ah maa ngi yow dañuy benn yow maa ngi yow waay su taxawee fii nga may yem si ndigg mais man dama apte pour sport man waxuma la bëree rek mais man beneen sport bu may def sax damay apte man waaye yow. moom gënee rek mun naa leen boxoñ dugal sama poche di doxoñ moom ah mais waaye yow leneen laa def nga naan ma af kenn mosu fa jaar nga naan ma dafa af. xam nga yii sax yii sax xam nga yii nii sax ay yeneen lay indi. waaw ah, yow sama morom nga. yow bu kenn. Ah. barke alxuraanu karim. te ne 15 combats la bëre. na bëre 30 loolu day dërëm 30. wallaahi du ci bëre kenn. waaw te doon toog si yooyu nga naan muy waxamul. kii bi muy daan moustique bu jaaro yi ci combat Siteu Papa Sow kii Siteu Sadio moo bëri spécial bi moom moustique. yaa may dégg ah. kii ñi mu bëri ay Youssou Ndour ah, ay Boy Diop yaa may dégg. ay Ousseynou Ndiaye kii fi mu jaar moo gën a tànk ñuy jaar fuuf. ay Sa Thiès barke yàlla dee na daan. mais lamb moo demee noon rek. mais ñoom bulldozer ñii ñii booy barke alxuraan kii tournoi bi mu duggoon bi seer ah. fu fa mën a yëngal ci tournoi boobu amul. waaw ah, wala. maa ngi jégalu waat quoi ah, plateau war a mën a gën a naaj fii quoi waaw na gën a naaj fii waaye nga dañu invité mu baax ñàkk Koña mi. am na combat moom ak wës jàmbaar jamaykee moom moo tëgg loolu noonu euh, liñ ko ci tudd mu ñëw accompagner rakam ñuy fàtte magam di moins ñuy fàttante moom ak Tonnerre de ñoo bokk ndey ak baay xam nga dañ doon kii rek dañ doon fo rek xam nga mu commencé kii mais moom am na komba mais booy bi nee na yéen ñii boo ñuy wax rek xam ne Tonnerre mii du seen morom métti na ma lool baat bi. loolu foog ñu tontu ko. kii dafa juum. dafa juum. kon sànq moom wax na ko nee nga mun nga bëre treize combats vingt combats loolu garaawul mais mbër da ngay bëre six combats nga xam ni yow yaa kii combat la mais tonnerre moom ñooñu la bëre loolu garaw mais moom daa toog si ñooñu ah, moom daa toog si ay loolu noonu noonu da koo tegle ah moom da koo tegle dafa tegle si yooyu noonu ah loolu la nit ñi di bañ a tudd da ngay bañ ma tudd ko dinaa ko tudd si loolu la toog. duma la koy wax ba nga dégg ko. si loolu loolu noonu si lay toog ay benn yoon ñaari yoon. mais ñun ñu teg la ay victoire. mais waaw si yooyu noonu rek. xam nga yow yooyu noonu nu mu demee moom xam na loolu. man non man daan naa mais tooguma si yooyu noonu de ma bor ma Papa Yade dafa ma daan man ma fay bor bi ma dem bëre daan mais yow nag sa bor dafa amee raq yow triant lañ lay woowee nga naan muy ma xamul. déggoo li ma la wax. bor amee raq triant lañ ma bi fayaat bor bi fayaat bor bi fayaat bor bi barki laa li ma la la wax de dama la ne dama la ne. man dëggoo yow bu ma amoon fukki boor taxul ma bëreeg yow ba tey taxut ma séntu la yow taxul nga dab ma yow yaa bëgg a man man bëgguma bëreeg yow xooluma la sax xooluma la sax yow waaye yow nooy bëggee nooy bëggee booy yow du ma yow waaye ah du ma yow waaw du ma ak yow. Fatma dama yow. waaw non kii boo ko fi kii dafa métti yow kii kii ndoxu si du moo ko sonal sax bi moo nekk fi du bëri waaw ndoxu si du bëri moo ko sonal booy bi ñëw na fi di wax yow xamoo sax gis naa amul temps yow waaw pare ngay comme yow waaw na nga jëndi xam nga moom bu doon tëkkonte moom gàmb bu doon tëkkonte kase kase kase kase noonu kon moom feeñ na bu yàgg waaw gàmb bu doon tëkkonte kase gàmb nag du noonu gàmb dafa am nu muy doxee gàmb da ngay góorgóorlu gëm sa bopp. kii dafa dafa prouvé dafa prouvé na góorgóorlu ay champion la daan mi ngi si yoon ay la daan waaw mi ngi si yoon bëgguma mu tilimal ngi si yoon na góorgóorlu c'est-à-dire comme ñu nekkee yoon nii di góorgóorlu cest à boo gëmee sa bopp ah koo mën nu maanaam koo mënul dajeel si kaw amul cest à man man li may rawee du ñuy bëgg kii yor waa des arènes bi daan ko. man loolu mooy loolu sama loolu maanaam du ñii loolu maanaam man dama gëm Fatma. li waa ji naan gàddu katu kees boo gis. gëm-gëm laa waxee wax ne man maa ko wax tey si émission bii nii incha allah rabbi dina am man dinaa bëgg di wax des arènes bu soobee yàgg dinaa ko bëggee incha allah rabbi parce que damaa gëm sama bopp voilà. waaw man li ma bëggoon wax rek mooy émission bi dañuy invité fi daf ñu fi ñu fi toog nii ñu ngeen invité ñii ñëpp xam nga. lama ya ka si ñun quoi ko ñu waru ñu mëna ñaaka fayral waru ñu wona ñaaka fayral plateau bi quoi xam nga ñun nañ waxtaan suñu biir rek. mais du boy joge fele di yuxu naan ngé ngé xam nga nañ ko def si affaire sérieux affaire baay fa fi ku nekk man nga indi sa boy mu dugg wax. yoy yeb garaawul ki tok ni champion bi dañ nga nangul Sénégal ñep ak ki tamit ñep mais boy da ngay def boy bi dugg sànq day def ay pourvem na lu ci lamba pour jéem a egg fii gars mais bu fekkee deux gars toog mu naan kaan ay yow di ma lay daan loolu bu ma neexee taxaw ne Yékini kii kat daan naa ko ko daan ba maanaam kon ni mu wax noonu ne daan na kii ko daan ba yooyu yëpp garaawul kii champion la ku naqaree bële ngi taay bi mu am si làmb yombul maa moom ñoo nduróo taay si làmb quoi fii ay champion rek a fi toog parce que man nit du la bañal sa sampion man soxoruma mais émission bi booy waruñu fi dugg di ñu saltal di wax ni te ay champion tok fi quoi xam nga boy boobu champion la. champion la boy booy mais xam nga adversaire la xam nga ay yooyu. malgré amna combat mais tonnerre fa melni ni wax dëgg yàlla defet yi bu woon defet yi mais non man xam nga lu tax man soxoruma ci lamba man mbeur ma lay nangul man damay nangul mbeur parce que xam nga lu tax bo beugé don mbeur ngay nangul mbeur sama ben papa da na wax mu ne mbeur bo beugé nek mbeur fo ngay daanu bo lu daanu do ma sa don champion ñi fi daanu ñom ñoo terroir waa réserve bi am sa ñaar defet la am may ngi jégal waa de am ñaar defet la am mo no xam ta indi tay mu ngi am si am am si am mu ngi ni di dox ay problème ta fi ñi fi tok ay xalé bu fekké nak wax nañ fi lo xamantene day déranger ñi dañu ko ñit da dañuy kii rek ma dañuy rafetal parce que am nañ ñuy sétane parce que li dafa neex trop ay ndaw yu tok xam nga waaw combat dafi génn parce que ñun ñii ñëpp ku fi ku fi neexoon tey man nga bàyyi làmba dem dawi ji leneen parce que ku fi nekk am nga sa kàntan am nga sa doole dem dawi ji leneen mais yooyu yëpp defuñu ko dañ ko tegee ne le ñëw na si làmba ji la ñu yaakaar kon ñun dañu war a gën a mën a jàppale parce dëkk bi ko xool nu mu mel ak ni mu mitee xam nga mënoon nañ dem dugg si yeneen gaam mais dafa ñu yooyu di góorgóorlu waaw Assane Ndiaye moom dégg naa li mu wax. Mhm. première question moom Papa Yade da ngay da nga delo ay combat pam doy ak Jackson nek ya ko run bëre. no man luma ragal. wa ah, mais li tax ma ngay delo ay avance. man delo may combat de. delo may combat mais loolu nga rejeté pam doy mais pam doy rejeté wu mako ah asan ngay nee ya delo yaa delloo avance adversaire bu baax la. mais asan mom bo déggé ci biram limu wax né eh, papa ya da buñ nga baye mu beure na woné bopam ci lamba ji man dégg ya na mu wax ah. lolu non da ne papa yàdda na baye limi def parce que. mënuñu mhm. concevoir man mi teug na combat ak pap doy bu jël avance par delo wat assane euh, fallu ndjay même chose pourquoi ngay delo wala gay sax ah modlo amna di combat mu yaxu fi meur mais yow do bala gay do modlo nak yow boy nga exemple la jël fofu manam kon ñoy buñ yaxu seen combat bu yaxu kon ñu jarul wax parce que lamba xam nga ak yaxu yaxo anda lamba cioño anda mais delo avance pour lan non man duma delo avance fan man da am ñu nekk sama ginnaw dama may kilifa tey tey dafa am boo yoo xam ne moo amee combat dañuy bàyyi seen métier bàyyi seen maçon bàyyi seen géej di dox si man di wax si man xam nga te loolu yombul quoi te man tëngee fii ma dëkkee làmb dafa xaw a booy xool dafa xaw a dee tuuti léegi la gars yi di góoru sax di créer ay groupe cent pour cent di si waxtaan yooyu di dajale mbëri tëngee ji mais làmb dafa metti mais ute naa banlieue bi ko ma banlieue bi dafa neex boo jegee yuuxu rek nga dal dënn mooy loolu gars yi jàppale la ma fële ruqa man mooy bëre ji si àll bi laay aw di dem di jëli ji nag gars yi dañ naan ay damay man tooguma de gars yi bàyyi fi ñuy wax man xaalisu mbappan moo ëpp fi ñu toll nii di bëre nii xaalisu mbappan moo ëpp parce que mbappan di nga dem jël benn trois cent mille wala benn cinq cent mille te boobu di nga mën a toogee quoi. papa yaa doguma la mais ñan ñoo nekk sa kanam. comme que rejeté de PAM doy waaw. Alioune Seye Alioune Seye junior. du pas mbër la champion. Alioune Seye junior mais Alioune Seye junior dafay daan ay ndaanaan. dafa daan brise ay ñu firikis. daan fa ay kii ay champion. non nangul mhm. paa yi nii Alioune Seye champion la. dama may chance ñu bëre même bu dul moom sax ku ko gën a dëgër ku ko gën a ngàndal. am na ku benn booy benn booy. ban booy la. booy géejawaay bi. man mooy booy boobu noonu daan Pape Ndoye. booy woon moo daan Pape Ndoye. kooku Pape Ndoye la daan xam nga mais kooku ñoo gën a métti. booy bi kan la ban da ngaa xam wax. Iridia wax a daan ki ngay wax noonu. booy bi nu mu tudd da ngaa xam booy bi. booy bi ngay wax Iridia mu tëngeej. waaw booy bi tëngeej la duggee am defet mooy booy boobu noonu. booy boobu muy Jackson Jackson. Jackson ah. góor gi Iridia daan naka soxla ko may chance du ma ko may chance. ok parce que dafa ñëw tëngëj daanu. ok te ma ko may chance quoi. bu bëggee foofu noonu am na yeneen mbër yu am foofu ay l'enfant noir. Ah. gars yi ñu ngi fa nañ ñëw jël ñooñu. mais à part Junior kan nga teg kon sa bët. Alioune ñi si kaw na ñëw. comme ñam mbër yu mag yi. ok ma de Alioune Junior laa fi gis. nga nga lim. nga ne ko ndaw day am fulla seetu mbër yi si kaw parce que man combat ma def la dynamique combat yi ma def dafa

dama ne ñii ñoo ëpp tur anti. ok ah, ma laamu may bëree may bëree ku ñu ñi xam. mais waa Tëngéej xamuñu ko du ma bëree moom. dëgg am laay bañ ñu mere ma. am nga si parce que man bu may bëree ñaan naa yàlla diw stade ba mu fees del ba promoteur bu duggee danaan papa yaa rek. ma loolu laa ñaan yàlla mais ñaanuma yàlla tamit dem stade xam nga si loo xamante ne nii déggoo ma sax samay mbokk ba pare dem di rusloo di am gàcca man loolu rus naa ko man ku ma xam naa dama mën a man 500000 bee fët fët dama koy jaay sama combat Papa Boy Djiné <laughs> barki Serigne Bamba dama nga laaj promoteur bi tëggoon combat bi béy ni mu ñëwee lool gaa noonu la nga Mune xaalisam joxaat ko ka mu ne déedéet li manul ne kontaan kon man nañ ma taman man bu ndaw laa sama mak tey tey ma ko tegoon ci plateau bi na nga naan déedéet amul parce que wax ñi toog ñoo maase. barki alxuraanul karim kon yow boy nga boy nga. man boy bu ndaw sama caatu yaay. kon yow ñi ñoo mak. man barki Nabil Moussa ñi ñoo ma mag yabo ku ñëwee paale waaye garaaw rek ah. yàlla mooy maye ay taay moo garaaw quoi li ñu naan xaw ma lan nu ngay waxatee xaw xaw ma nu ngay waxatee <laughs> ah am nu waxee dangaa précoce dal quoi <laughs> man xale bu ndaw laa ah kon ñii ñoo la mag ñi ñëpp non loolu loolu day am loolu du am la. ok barki Serigne Bamba Doo Ziga amee laaj bu may bëree moom xale bu ndaw laa kon da bëggoon Doo Ziga moo la mag. Dóor Zigal laaj nga bi ñuy bëre xale laa la mosuma la ëpp yow chaque jour ngeen ne ma suuroo di réglé rek nga naan ma maa la ëppoon. non magu ko de. non Dóor Zigal moom mag. yow yàlla magu garaaw bu waat yàlla loolu garaawul loolu garaaw ay mag ay mag yóbbu CNG boo demee dinañ xam ku mag ak ku magul loolu garaawul waaw loolu moom garaawul loolu du débat bi. Euh, waa ngoonul làmb ba léegi nee nañ Papa Yade doon compétir ci euh, dem ci lutte simple yi nee na lan moo waral loolu. waaw war nañ dëgg gis nañ ñi la laaj loolu xam nañ Papa Yada parce que man Iba Mar fii nu mu tuddati Grand Yoff foofu noonu daanu fa jóg demi final wala final far fos mais xëy na làmb moo xaw a garaaw ñun fi ñu dëkk ñoo amul jàppale gis nga mbër mu si amul jàppale gars yi dañ lay fàtte parce que làmb moo gën a moo amee defar rek gars yi dañ lay jéem a fàtte fàttelu mais sa sa sa jolloore yooyu noonu dañ koy jéem a fàtte fàttelu lamu mo garaaw gaay nañ gessu mbeuri di xol Mira Assane Ndiaye de amna na lu ma envoyé kaay liir koy joxe information Assane Ndiaye de amna na lu mu envoyé waat xaw ma lan la ah après continuer wa mhm. gaay amna ñ ay dynamique. Mhm. combat yu bax xam nga li ma la wax dañu wara sentu mbeuri yoy nonu di xol seen combat xol fiñ jaar parce que tay tay tafatin mu ngi ki rek la mu ngi ñëw ne da beure bëri bëgg bëri bëgg a bëreex Tafatine gars naka do beure mom lu tax parce que ay dynamique de combat la fi mu jaar lol day am ci lamba tay tay man fi ma jaar do Kaaw war rafa fa baye a bañ a jaar man fi mu jaam rafa naa baye jaar lol day am ci lamba ga nañ xol dynamique de combat yi tey Papa Djiné mi ma daan garawul lamba ji ni xam nga champion la amna combat ma ngay ñaanal yalla mais mom du mbeur mo xamna ni sama waron dama non rafetal sama palmarès sama. kon Papa Boy jinné rafetal palmarès mo ci duggoon wala bëgg tour ñu bari nañ da nga bëggon tour nak dama xam woon. mais yow nee da nga cee buzz. nee ma ni yow ko wajina jënd na mais xamula. mais yow buzz nga ci bëggon non xam nga rek buzz yi ala lay maye. mais Papa Boy Djiné dafa séeréer yi di ma may ay 2000 ay taw loolu yàgg na man yàgg naa am bës dem naa équipe nationale Cheikh Tidiane ñaamii nii génnee académie ñoo nekkoon woon équipe nationale bi muy soogat boobu demagul woon sa académie ñoo fa nekkoon Cheikh Tidiane si àll bi lañ naan dajee di bëre. bëri nañ ci àll bi mais am na yoo xam ne kenn du ko wax parce que mbër doo ko daal ba pare toog naa. ah kon daan nga ñu information boobu daan nga Cheikh Tidiane mais yow champion nga. li may ñaan li may ñaan rek yàlla ta tax li may ñaan rek waa Tëngéej nañ geesu jàppale ñu. ok da ngeen a manqué ji. man loolu rek laay jooy Tëngéej mbër yi fa nekk yëpp dañoo sonn maire bi kenn xamul la lay liggéey tëjul kanaal yi balewul tali yi raxasul tali yi ñaaw na Tëngéej bëri na mbalit c'est que ñun maire Tëngéej moom moo ñu sonal ñun Tëngéej Macky Sall dimbali ñun Tëngéej dañ fa sonn. message bu am importance la. bu am importance la dañ sonn Tëngéej mbëri bu ñu fay bëri dañu war a dem maire yi daggal leen dem dem tamit daggal leen xaalis mais dañuy dem dagga fa 500000 ñëw jox la 100000 loo si mën. kër yi mais gars yi nañ jàppale mbëri ñu bàyyi caaxaane parce que ñun li ñuy def yombul foo am góor dóorante sa bëñ mën na dama dañ. sa bakkañ damm yooyu yëpp risques yooyu ñuy jël noonu gars yi nañ ñu geesu jàppale ñu ñun combat ñuy am nii booy taxaw ni dañ koy am taxaw fii kon genre booy ñu bëgg a yeb nii xam nga yooyu noonu xam nga rek genre booy yi tamit taxaw fii si plateau di wax naan nii nii man ñi sama moroomu góor yi ma jaakaaroon barki Serigne Bamba bu ñu jàppoon ak ñoom barki alxuraan ñu xam ne duñu ñu seen moroom. ii yow papa yaat nag daa xeeb ñi Mira waxoon na ko. non xeebuma ñii. Hmm. ñii ñii ay champion lañ mais man li may wax si boppam man xam naa ko. mais man limay wax ah limay jëf mom xamna ko de mais duma nangul loolu mais làmba la parce que làmba ku ne da nga bëgg a mhm. ko kenn ku ne da nga war nangul nangu sa morom ah, champion la. nga ne ko mënoo parce que loolu gëm sa bopp la boxu ñun loolu fofu lañ tollu ni mais ñun tënkee dañ fa mo de kon Dakar ñaa nga xam lepp deug la. non am nga combat wax ah man boy man duma sa morom. ah mais euh Tonnerre nan nga gisee lamb parce que gis nañ lamb instant bi yeen boy mais may dañu tuuti tuuti tuuti tuuti tuuti euh, Tonnerre nag nga gisee instant bi làmb parce que gis nañ ni làmb gars yu bari nee nañ euh, làmb doxatul sponsor yi daw na mbër yi pour ñu bëree sax problème na nañ ko gisee làmb en tant que jeune. waaw ah, làmb moom ni ko gisee comme comme ni ko ñëpp gisee rek maanaam gis-gis yi nag mën na mën na ñàkk bokk quoi parce que làmb léegi maanaam bu dee ci suñu côté bi euh, moytuwante bi bëri na yaa ngi tuwante bi wiri-wiri bi comprendre nga da ngay wara beure ki nga ne duma beure ak mom ndax mako raw diw dafa ne ci saaku yi d'accord lamb ak daanu ñoo an yaay manam yaqku yaqku bu beuri ci lamb ñun beuri ndaw yi ci suñu côté la nek parce que tuwante bi jaari ne jaari na le comprendre nga ñi di yotu luñ bëgg te luñ mënta am yaay ngi ñi di yotu lo ñi lo ne ci mën nañ ko am mais ñi ngi wara dajal moy lool dañ ci tek seen tank waaw ah mais lamb Iba gi tëj tamit dina dina dina dina kii lu bëri ci làmb Iba gi nga xam dañ ko tëj tamit d'accord xam nga am na ci ay mbër yoo xamante ne si nga leen di teg ñuy bari grand komba fii parce que fee bu ñu fa demee lu lemb woon day feeñ am naa mbooloo moom fee lépp day doon dëgg waaw mooy daj dëb gi képp ku doon naan am naa mbooloo Iba Mar nii Iba Mar tiktikal isi Iba neex naa kii neex naa feesal parce que da ngay gis waajoo xam du def dara sax ngoon jot mu ne xaaruma dem Ibamaat seetaani lamb waaw mooy loolu. mais bu dee fële. lépp dina feeñ lépp dina feeñ. am na solo Papa Yade nan nga gisee làmb instant bi parce que prom kii ñii di sponsor yi daw nañ promoteur yi. Euh, da ngay gis ay combat espoir lu ñuy tëgg euh, heure bi daan na fekk combat yu mag yi mag taxaw affiche ñu bari na lamb dafa commencé euh, dem lamb doxatut yow lan ngay wax foofu. waaw loolu lu ma siy wax rek bëri na bëriwul quoi parce que laama boo demee ba na doxatul yenn mbëri mag yi tamit bàyyi ñoom ñoom ñooy geesu xoolaat seen bopp waxtaan seen biir ngir benn tàkkusaan ñu fay la si tant million millions tey mbëri ndaw yi bàyyi seen i yaari sonn di boot ay natalu ne xam nga di daw xam nga loolu dafa metti quoi te mbëri ndaw yi xool ñuy feesalee stade yi dañ leen di tëggal combat dañ leen di fay benn un million wala dara xam nga ñu feesal stade bi ñëw bëre. da ngay gis mbër moo xam ne day bëre grand combat mbër mu mag du indi sax dix personnes loolu nañ ko gestuwaat si làmb bàyyi xel loolu quoi parce que mbëru ndaw yi dañoo sonn parce que seeni yi parce que ñëw def kat appi làmb ji jee te ñii dañ fiy nekk dóorante ba seen i bëñ damma dëgg la nag yàlla moo yor loolu quoi mais gars yi nañ gën a defaraat làmb ji làmb ji nañ ko gën defaraat parce que booy dañ sonn si làmb ji ku su mel ni sama genre morom yi ñuy toog nii dañ sonn si làmb parce que xam nga bu dul sa boo amul waaju baax bu lay jàppale ku si mel ne ay paate booy tey xam nga ñooñu noonu boo leen amul na ngay sonn xam nga ku si mel ne ay Ousmane Ndiaye dëkk Tëngéej boo leen amul na ngay sonn mais xam nga gars yi nañ geesu ndaw ñi waaw sponsor yi moom maa leen ñaan ñëw ñi si mën a ñëw nañ ñëw jàppale làmba ngir soxla nañ leen yitewoo nañ leen quoi làmba insi nii dina baax mais làmba bu ñu siy nekk nag di wax naan du baax làmba ji yàqu na làmba ji nangam na du ma sa dem. parce que ñi ngay gis ku nekk si làmb sa taxaw naan non làmb ji dafa yaaxu loolu gaa yi nañ bàyyi yooyu ñoom ñoo yaaxal làmb ji parce que yow boo yow si loo nekk bëgg mu dox ba pare sa intérêt sa lépp di si génnee nga naan taxaw si tale naan làmb ji dafa yaaxu kon loolu du ñu arrangé ñu bëri yooyu noonu wax yooyu nañ ko baay waaw ñuy defar ñun daal sa sa guur li ñu bëgg a dégg làmb ji mu ngi dox nay dox rek ñu bàyyi ay baatu ay dina yaaxu ay dina def nii quoi waaw tëj biñ ko tëj loolu noonu xëy na affaire lijjanti la rek. neexul nag parce que foofu làmb dafa neexee parce que la bés bu ne xew na fa mais mën nañ ko négocier rek man loolu laay ñaan ñu négocier ko parce que am na ñoo xamante ne nii foofu lañ dëkkee te chaque dimanche bu ñu génnee dañuy seetaan làmb foofu noonu xam nga Macky Sall dañuy ñaan rek mu dimbali ñu si xoolal ñu ko gën a waaw dafa rek parce que Ibamar waaw. kii boo xam ne nii mbëri dañ fay daan seen doole daal yàgg na daal maanaam bu ñu ko bëggee jëlee rek yóbbu ko fee day xaw a metti dëgg la waaw kon daal yaa nag li mu wax dëgg la quoi balaa ngaa xam ñu yóbbu ñu tamit arène nationale man moom arène nationale moom waa Tëngéej bu ñu fa maabee. Rousseau faa dem daal. oh ne gars dañ ma yóbbu nga xool defal ma bés bu mag nga xool. Ah. jox ma mbër mu mag nga xool. joxol bil désert. bilaay walaay di ñaanal tamit gàmmu gay combat bi. loo ko ñaanal doyul mook sox waaw Gambu Gueye maa ngay ñaanal yàlla yàlla may. loo ko ñaanal doyul Seydina Mohamed boo xamante ne nii waaw day gaaw. yow daan bu amul benn werante. joxal laa koy di sant mbëri Tëngéej mag ama sama doomu. di nga sant la demee. Bulldozer gisee làmb. waaw moom xam nga ñun ay mbër gañ ay xarga gañ xam te dafa am fu ñu teg suñu bët ñun nii ñëpp ku si nekk am nga foo teg sa bët te ñun ñëpp ñoo bokk fi ñu teg suñu bët xam nga ay xale lañ te ñu ngi si làmb ji ñu ngi góorgóorlu di wax ne làmb daal jamono ji xam nga ñun ñoo koy defar ñun bëri ñun ñoo koy defar ñun xol yi doon benn ma yi seen xol yi doon benn xam nga ñoom ñëpp ñu nekk benn manager yi noonu ñi nga xamante ni CNG bi jàpp si làmb tamit bu baax a baax a baax parce que làmb nekkul loo xamante nii dañuy ñëw rek def ko gaa yëpp si jàpp. day jaat CNG moteur bi manager bi ba si sax ba si sax ba si sax euh, kii nu mu tudd euh, ba si sax supporters yi ma amateurs yi xam nga ñëpp na seen xol doon benn ñu bàyyi làmb te bàyyi yàq bi làmb daf say bëgg ñu nekk suuf di yàqu di nekk si suuf di yàq di woo wax ju bëri te en général ñi ñi nekk si làmb di wax wóor na yàlla boo xoolee ñu tuuti la ñuy doon. boo xoolee ñu tuuti la ñuy doon wala ñu nekk si làmb di wax naan làmb bu baaxul wala nangam na en général ñu tuuti la ñuy doon. xam nga làmb daal ñun nañ ko defaraat te ñun mbëri ñu ngi si waa di waa kii li mu wax am na solo ñun mbëri ndaw yi des na ñoom jàppale mais nag mbër nit moom yëpp loo nekk di si góorgóorlu rek bis dina ñëw xamat yàlla jàppale nga si xamat nga am si njëriñ nga am si lépp loo xamante ni boobu ñun ñii suñu mel ni suñu ay grand xaadim guy suñu xam nga ñun dañ ciy jàpp ay Iba xam nga suñu grand nekk Marika sama mafia xool sedd bi gars yi yëpp dañ ciy jàpp ku si mel ni sama papa Ndiogou saw ñooñu xam nga seetaanuñ ma man def ma daga da am bëgg dund xam nga. jo euh, tëj bi ñu tëj Ibamar. Ibamar tëj bi ñu tëj mais gars yi nañ ñëw Pikine am nañ stade mais gars yi war nañoo mën a sax defaraat beneen stade bu ndaw ba stade bu Malga war nañoo mën a jàpp xam nga defaraat beneen stade bu bu ndaw parce que ñun combat espoir yi nii xam nga promoteur du jël combat espoir di ko def grand combat kii fee arène nationale war bu amee tamit du mel comme ni mu war a mel stade noo ko feesal den si rouge bi ngay yem des fois sa rouge bi fees. boo defee combat espoir noonu xam nga mais maa ngi lancé daal message boobu noonu gars yi nañ ñëw xam nga président Macky Sall ñu ngay ñaan nga defaraat beneen stade bu ndaw bu mel nii comme bee parce que bee moomuñu ko bee terrain handball yi la bee ñuy joué handball ñoom ñoo ko moom ñun sax dañ koo yàq xam nga nañ ñu defaraat rek benn stade bu ndaw boole ko bii mbëri am ñaari stade compétition bi mën a neex mais instant bi moom comme ko Pikine nga waaw gars yi nañ ñëw Pikine rek waaw nañ ñëw Pikine rek. na ñëw non fekk ñu piñ dañ fay e fekkante waaw man Malika ga dekk di ñaanal suma grand frère yi ku ci melni ni général Malika wa suma mag général ma ngi koy ñaanal mom xam suma grand te féete na mu fep waaw diko ñaanal ndam si combat mo mo fi sa baga waaw diko ñaanal ndam bu baax ba di ñaanal tamit suma grand frère armée mok feugala la combat la ilaha illallah waaw na 31 mai suma dom day suma grand suma lépp ko man moo ma yàl si ram bu muy jazz xam nga waaw maa ngi koy junior waaw maa ngi koy ñaanal li mu bëgg si làmb xam nga yàlla may ko parce que sonn na si làmb waaw Diaz xam nga depuis ba ñu nekkee booy man dama ko yàgg topp ma nekkee xale yëmbal xam nga mooy loolu daal gaa yi daal xam nga ñi ngeen di ñaanal képp suma grand frère yëpp ñoom sa mafia bi mafia taaga jóob bi xam nga daa gars yi maa ngi di bëggee gaa yi si biir yëpp képp ku ma limul rek. deux Giga noo gisee làmb. non làmb ji ñun moom kon chaque saison ñu ngi bëri ay ñaar ay ñett dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax mais bëgg nañ gars yi ñëw gën ci jàpp ndax làmb dafa nekk benn affaire boo xam ne si dëkk bi la nekk mais ay sept ministres dañ ciy gis seen bopp. Mm-hmm. waaw ndax culture bi da ciy gis boppam sport bi da ciy gis boppam même économie da ciy dund moo tax foog ñu jàppale ñu bu baax a baax a baax a baax surtout gars yi nekk ci dëkk bi ñoom ñu jox leen wàllum kii bi sport bi. ministre des sports bi Matar Ba nañu gën a jàppale gën a jàppale affaire yi même mi ngi dox sax mais nañ ci gën a jàppaat quoi combat yi nànk-nànk ñi ngi taxaw dañuy ñaan yàlla na yëpp sotti ñëpp bëre waaw yàlla baax na. non Iba Mar moom waruñu ko tëj ndax am na loo xam ne bu nekkee si dëkk di dundal dëkk kenn waru ko yàq monument la. avant jiitu na suñu judd ay 1900 da ngay dégg ñoom père Birahim maa ngi koy nuyu en passage père. waa sax xam-xam bi yëpp maa ngi leen nuyuwaat da ngay dégg ñu naan bëri nañ fa keneen ak keneen bëri na fa keneen ak keneen bëri na fa presque mbëri fa bëriwul mbëri fa bëriwul bëriwul Tapha Gueye la ni defe naa ak Tyson ñoo fa bëriwul kon xam nga ne foofu monument la ay Modou Lo Eumeu Sène Balla ñoom ñëpp bëri nañ fa gars nañ ñu gën a gëstuwaat gën a xam ni xam nga làmb ji yëfu ndaw la te si réew mi ñoo ko moom jéegaane wuñ ko feneen nañ ñu jàppale kaal waaw bulldozer su ma la waxee Balla Gaye Modou Lo Eumeu Sène Lac de tafaatin euh, ak ki ma fàtte ku ma fàtte les VIP. Hmm? am waaw non ñu yam foofu noonu waa ainsi de suite ñooñu noonu bulldozer kan ci kan lay gis boppam bu bëree mu sentir ne tey mbër mii tey gis naa ci sam bopp mbër yooyu mën na li man waaw ñooñu ñëpp gis ma si kenn ñi nga gëm noonu ñëpp. gisoo ci kenn. gis ma si kenn sam bopp man sam bopp laa gëm mais nag am naa idole si gàmb Forza numéro un. Forza men. waaw ñu koy nuyu au sama xarit dafa am sañ-sañ waaw te gars yi war nañu koo jël ndaanaan ba ñu ko bàyyi ginnaaw Forza ku ko jël danga koo gagal waaw. Euh, même question bala ñuy tàggoo bu du tàqali ko euh, Papa Yade. Mhm. yooyu noonu Papa Yade kan lay gis ci boppam. Papa Yade Papa Yade ki muy gis ci boppam man assurance mu laa gis sama bopp quoi. ñoo bokk dara sama mag la. sama papa la sama papa bokon ko ndey ba assurance mbuur mom la gis bo sama bop parce que bu ma bu ma gisee rek lolu ñaka gëm sa bop la sax parce que mon beur dafa nek sama soufi tang quoi lepp lepp le mo wor quoi waaw lolu tax. am nga idol. ah am nga idol. wa am na idol kay. kan mo sey idol. wa mbeur sama idol la ama neex. ama neex wa parce que moy yobu sa lama di dacc si neex lepp alam lebu la. wa alam lebu dal mhm. wa lolu nak nag. tonnerre de même question. wa Tafatine. lan lan yan qualité moo la gën neex ci moom. waaw ah, Tafatine bokk gi rek. <laughs> déggal gars yi di ah. ah. gi rek. Mhm. waaw mhm. waaw waaw ñuy di référence ci ñun quoi waaw. lan moo la gën marqué ci làmb. Hmm, làmb li mu ci gën marqué kiwul de bëriwul de. ban combat moo la gën neex sa combat. sama combat bi ma gën neex ci sama combat yi mooy sama combat ak mustik boobu daf ma daf ma gën daf ma gën a te boobu gars dañ doon topp ci sama ginnaaw gars yi ku ci mel ni Mor Diouf Baye Djilime ñu naan moustique mënta daan rawaan jël bu gaaw daan ñoom ay soq ak yooyu nga di ko bëreeg moom da nga da nga da nga da nga bëgg a jékki-jékki rek di bëreeg gars man leen noo yàlla def ñu taxawal ko ma bëreek moom ci combat Sa Thiès ak Siteu ñu bëre ñu ne ma day ñëw comprendre nga yàlla suturaal ma ci may ma ci ndam combat boobu bi ma koy daan boobu sama xol mu ngi set guy avant ñuy ak ci suus sama xol a ngi set guy waaw di profité di ko nuyu moom tamit ndax borom baax la quoi waaw di nuyu sama gars yi ma àndal tamit Koña 2 Baye Jili Mor Diouf Aline Sey di nuyu wa Colobane gi ma joge yeb waaw Papa yad ñooñu non oh, ne gisoo ci sama instant bi yan ban combat mo la gëna neex say combat ban combat hmm sama combat pa Thiam mo gëna neex sama combat combat ak pap Thiam sama combat pa Thiam bu ah, Papa kan ah, sama ki non pas Thiam waaw dama dëkk xam nga géejawaay la. waaw mooy bu papa waaw ak kii tamit turbo parce que ñëpp bi may dem. Mhm. ñëpp dañu woon dañ lay daan. ok bëri ay wax sew xam nga. Mhm. ñu ngay bëri ay champion la ñoo ñoo la njiitu affaire yooyu. Mhm. xam nga ma ñëw yàlla may ma si ndam. loolu daal moo ma gën a neex samay combat. Désiré. waaw. Modou Lo suñu référence ñun Modou la moo ñu xeexal indépendance si làmb ñun jooy ñu indépendance si dara. waaw mais ñun booy yi nag dañuy ñëw pour jël suñu démocratie si Modou Lo qualité yëpp personnalité bi sportif bi athlète bi lu mu doon moo tax mu ñun daal dañuy xool si moom si yu bari mais ñun man moom dama far ba pare am na beneen mbër Papa Sow mooy sama mbër Lac kiri mbër kay waaw. non amaguma ko. déedéet amaguma ko. no non ñun ay sportif lañ. bu ñu bëree daan dañu xam ne sportif la suba suñu xëyee dañ ciy nekkaat bu ñu bëree ñu daan ñu tamit dañu xam ne ñun ay sportif lañ dañ ciy nekkaat loolu mooy làmb quoi loolu mooy sport sax pas làmb waaw. comme que nee nga yaay sa idolu bopp. parce que kenn ku nekk am nga droit fan sa bopp si sa yenn combat moo la gën a neex sa combat. man sama combat man ak Bathie Seras numéro 2. ndax lan daanaan nag. waaw mooy bi ma daanee mooy def daal. waaw bi ma daanee. Mhm. Seras sentir na man. dama war a nekk mbër. Mhm. loolu par force la. Mhm. moo tax combat boobu mu gën maa neex. defet ga. mais defet bu ma def mbër ga nag. waaw noonu su ma si continué woon. noo baax. mais heureusement moom daan ma moo tax. ma jël tournoi bi. Uh-huh. waaw moom su ma daanul woon. Uh-huh. gëm naa ne tournoi du ma ko jël. Uh-huh. waaw mais moo tax combat bu gën maa neex man samay combat. j'espère que vous avez aimé ah hein. li mooy premier numéro boo xamante ni dañ leen ko indi rek ñi ngi ñi ngi wax ba léegi li ñuy wax dañuy kaf ba léegi xam nga rek euh, naan leen nit ku nekk yaay xool luy defar sa kii rek nga def ko euh, di wax rek ñëpp nañ ñëpp ñaanal info réew mi maa ci gën a ndaw. di ñaanal nag képp koo xamante ne yaa ngi ñuy teewlu kon li may wax rek seen rakk seen doom seen lépp Fatima la dame de fer nii la def nii. mandakoog nag euh, benn équipe boo xamante ni macha allah bu ñu nee Messi rek ñëpp xam nañ ni Messi duñ ko jox koo xamante ni yaas yaa fuus la muy Omar borom Thiès borom Dakar di ko remercier bu baax a baax taxaw bi nice na. Kalidou sama chéri koo xam ne ma yàlla bëggee na ma bàyyeek moom waaw di ko remercier waat bu baax a baax affaire yi nice na de ñaanal ñun ñëpp ku ci mel ni da baax moom it di ko remercier ah, bu baax a baax naan ko kontaan nañ mbër ñu ngi koy remercier bu baax a baax mais kenn sama jument sama xarit lépp lu may dugg rek ci taqrib mooy Mira l'animatrice bu nga xamante ni macha allah xaritu Ouzin Keita <laughs> waa di wax di wax rek lépp loo xamante ni ah, wax nañ ko fi wala lépp loo xam te ne def nañ ko fi muy lu rafet wala loo xamante ni tamit naaysul di wax rek dañoo bëgg lépp rek muy rafet ndax ku gis Papa Yade jóge ba Tëngéej mu nekk xale boo xamante ni ñëpp dañ koy bàyyi xel xale boo xamante ne boo Papa Yade ay moromam ñëpp di ko laaj rek kon donc am na lu mu fi def di ko remercier waat bu baax a baax ci disponibilité am ndax ñëpp xam nañ ni euh, temps amul mais lépp daf ko def rien que pour nous faire plaisir rek laay wax di ko remercier waat bu baax a baax tonnerre de moom it pareillement wax dëgg yàlla mu nekk mbër bu baax mooy bu disponible dama ko rek mu ne ma amul benn benn problème mooy maa ngi koy remercier bu baax a baax a baax Bulldozer moom di ko remercier parce que maa moom tamit dañoo bokk lu ñu mënul séddoo wax dëgg yàlla dama ko wax mu ne ma amul benn problème soo paree pare naa euh, deux ziga pareillement di waxtaan kontaan naa ci yéen bu baax a baax dama leen di jox nag ñu tàggoo tàggoo bu du tàq tàqali ko ba beneen yoon parce que combat taxaw na fii tonnerre de ak bulldozer Assane Ndiaye Bawol production incha allah dañ indi yeneen yeneen leeral pour wax ban combat bi ban kii la euh, di fàttaliku mbokk yi naan armée ak fëgg taxaw na euh, loolu prince moom moo ko taxawal la 31 mai mujja ak ki nga xamante ne moom mooy caat loolu avril la nongolo tigre taxaw na euh, gàkku 2 ak boy sey taxaw na Alioune Seye 2 fas yéene jàkkaarloo ak ñaq jariñu loolu dimanche la incha allah di wax daal combat yépp ci kàttanu yàlla dañ leen ko indil incha allah daal lépp dañ ko def daal dinaa def nag lu ma mën ak lu ma mënul ngir yéen parce que yéen ma sas te dinaa def lu ma mën ak lu ma mënul di remercier ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp mais Cheikh Diop maa ngi lay remercier ñëpp ñëpp ak ki nga xamante ni buggu sax mu tudd turam moom mooy coach loolu noonu Galaye Taaliba Bamba xam nga ñëpp ñu ngi leen di remercier